internet chers spectateurs asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax itamit di leen ndokkeel ci week-end gi ñu jógee waaye tamit di leen wax ne mbaa vous avez passé une excellente nuit j'espère que yéen moom am ngeen bu baax a baax loo xamante ne am na solo bu baax ngeen commencé ko ci week-end bile tey altine ñu xam ne commencé waat nañ encore une fois euh, c'est reparti pour votre émission yor-yor nee naa leen yor-yor d'émission boo xamante ne daanaka ñëpp a koy parce que dafay nekk émission boo xam ne day waxtaanee lépp lu jëm ci lu soxal askan wi les faits de la société waaye ñu tënk ko ci diine muy ay njàngat yoo xamante ne sans parce que ñu ci gën a bari dañuy daal di waxtaanee ni ni mel waaye am na ay limites yoo xamante ne dañ cay daal di dox ca loola je vous ai dit l'émission toujours day persévérer di indi yeneen dimension waaye tamit di doxalee neneen ca loola ñu xam ne ci safar gi la lañ daal di nekk waaye émission gii duma ci wet benn yoon maa ngi ci bi nga xamante ne moom fego plateau bile saa su ne bu waxtu bi jotee muy oustaz Ahmad Dame Niang salaamualeykum ya oustaz. waaleykum salaam kan baax aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar tabarakallahu di leen bëggee nuyu nag tabarakallahu réew mi ñu dëkkee réew mi yëpp nuyu leen nuyu xalif généraux yi ci réew mi yëpp tabaarakallaahu ñaan yàlla yàlla mottali seen liggéeyu maam waaye nag kan tabaarakallaahu ñu nuyu yëpp jullit yu yàlla yëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu ann Mouhamed Rasulullah ñu ngi lay nuyu nuyu nag ñiy seetaan Leral TV rawatina nag émission bu mag bii di émission yor yor tabaarakallaahu nuyu la yow xaaji kan tabaarakallaahu nga xam ne euh, sama gars yi sax fu ma romb ñu naan ma ana kan kan ana kan damay toog weekend bi daf ma dal vendredi bi may waxtaan samedi bi may waxtaan. waaye su may waxtaan téye micro di waxtaan. boo mooy ci wax ki ngay waxtaanal mën naa toog di kan kan kan kan gu bëri. di ko répété ba gars yi naan ma waa léegi oustaz nag kan nag kan ana kan nga ne kan kanama tàmbal loolu. nuyu nuyu aji ah, nuyu nuyu soxna Adja Assou ko bu baax tabaarakallaahu. Mhm. waaye nuyu nag tabaarakallaahu gan yu ñu dalal tey. Mhm. tabaarakallaahu muy Serigne Tafsir Ndiaye. ndeysaan ndeysaan xarit ñu dalal ko moom it waaye ah, alxaaji Ndonga. tabaarakallaahu macha allah tey nag fii dina neex. dina neex ni ma ko ni ma ko yàgg a defee rek noonu laa koy defee. <laughs> invité gars yi ñu bëggal ñu incha allahu taala léegi nag tey sëñ Tafsir Ndiaye la ñuy invité. ndeysaan ku bëgg a xam Cheikhul Khadim spécial Serigne Touba la. ndeysaan ndax moom Cheikhul Khadim rek waxtaankatu borom jumaa ji. ndeysaan tey nag borom jumaa ji lay waxtaanee incha allahu taala <laughs> mu ànd ceeg Serigne Ndong. macha allah mais balaa loolu nag kon ñu uh-huh. développé ci thème bi incha allah. ayca loolu à chaque fois comme je vous ai dit on a maintenant l'habitude habitude bu ñu am muy euh, à chaque fois dañuy gis ne ñoo xamante ne déjà dañuy dañuy waxtaanee ni mel waaye ñun on a deux heures de temps chaque fois noonu lañ koy daal di defee depuis safara gi mu tàmbalee ba léegi euh, une heure de temps bi dañuy waxtaanee thème boo xamante ne dañ koy daal di aborder comme nu ñu daal di wax yor-yor comme turwa bu ñu jugee ca loola ñu indi li nga xamante ne mooy safar maanaam dañ ciy saf sap comme à chaque fois comme ni ma leen ko waxee Leral TV mu ngi préparé wu déjà y a une équipe yoo xamante ne déjà day daal di di daal di ko woon waaye nee na leen Leral TV est au cœur de l'événement Leral TV est au cœur du Magal de Touba 2023 ca loola aujourd'hui le thème du jour c'est infidèle infidélité lan mooy loola waaye infidélité ndax mën nañ ko tekkale xaw a polygame tuuti ndax mën naa indek ni ni mel lan la islam wax ci loola itamit lan la askan wi gisee ni ni mel comme je vous ai dit tout de suite je vous parlais de l'innovation boo xamante ne déjà ñun dañ koy daal di def cette innovation n'est rien d'autre que dañuy dolli beneen rubrique ci émission gi ni cri du cœur cri du cœur mooy lan muy eh, ab ab ab rubrique boo xamante ne suñu soxna Marème depuis Paris moo ñu koy daal di defal bu ko defee ba noppi ngeen gis ne euh, déjà di ngeen ko miin ci plateau bi la parce que itamit ñu bari di nekk ci réseaux sociaux bi la elle est très présente là-bas te itamit di ngeen ko gis waaye dorénavant elle fait partie de l'émission te itamit saa su ne daf ñuy daal di àndal yaa oustaz infidélité ak. xam naa nag xam sa sa émission bi infidélité moom di ma wax ne ma lii mooy infidélité <laughs> te balaa loolu nag tey nag damaa bëgg nga tijji nag na nga tijji antenne bi gars yi ñu wax ci infidélité. d'accord waaw. incha allahu taala. c'est important c'est important. alors avant tout d'abord je vais vous dire juste une chose comprendre infidélité ci ñi bari ñu ko xam xëy na baatu olof gi moo xaw te dëgër ñun ay xaal pulaar lañ mais infidélité muy nit boo xamante ne mënul yem ci kenn kuy tromper. maanaam nga trompé sa partenaire nga trompé sa jabar wala ngay nga wala ngay trompé sa sa ki nga ki ki nga nekkal wala ngay trompé infidélité boobu mooy da ngaa infidèle ci diw. d'accord muy fidéloo ci ci ki ngay génnal. wala leneen laa wax ko. beneen gi mooy infidélité bi nga wax xam naa ko <laughs> waaye damaa damaa damaa bëggoon nga ñëw euh, maanaam euh, détaillé xam nga infidélité. Euh, dafa am gaa yi lu ñu koy jàngee te charia waxee ko noonu. Mhm. mooy maanaam kan nga am aawa nekk ak moom ba heure bu la neex kan. donte nag muñ na lu ne kan xaar na ko fa kan ba muy métti yaag moom kan ba muy tàng yaag moom yoroo tus ngay jug ak daanu yaag moom kan nga xëy yor na da ngay takk ñaareel ñu ne dafa war dafa infidélité dafa infidèle ndeysaan mais loolu pour lan kan tey waa mais yàlla moo ko sant mu takk ñaar waaw ndax loolu infidélité waa waaw kon nag infidélité lu baax la na gaa yi xam ne kon lu baax la <laughs> oustaz infidélité euh, mm-hmm, allez-y kan mm-hmm. maanaam li ma li ma li ma mën a wax ci loolu mm-hmm. mooy borom bi subhaanahu wa taala moo diggal góor takkal benn comme ni ma ko doon waxe takkal ñaar soo ko mënee takkal ñett soo ko mënee takkal ñeent soo ko mënee te bëgg ko bu dee nag di nga màndu bu dee dem nga nag ba mënoo màndu mënoo yemale yàlla ne yemal ci benn ndax rasul nee na ku takk ay soxna te yemale woo leen ëllëg yowmal xiyaam sa place du nekk aljana loolu tabaarakallahu ñëwoon naa ci xaddis bi yemale ci lekk yemale ci naan yemale ci tëdduwaay yemale ci lépp maanaam li ngay defal kii nga defal ko kii li ngay defal kii nga defal ko kii rasul daf ne képp ku jeng say jabar am ñaari jabar wala ñett nga jeng kii nga di ko solol jees neer kii nga di ko solal vaccin kese kese kii muy sol jees neer kese Rasul nag nee na boo ñëwee naa ko rek léegi yow kooku maa koy rek léegi yow. d'accord ki nga koy def muy sol vaccin maay avocat am. maa ki ngay néewal doole. ki ngay néewal doole maay avocat am moo tax jigéen bu koy góor di def mu ñëw njool màkk ci ngay yem mu ne ak ba ci tëdduwaay tëdduwaay kii nga ba ko muy tëdd ci payaas kii nga bàyyi ko muy tëdd ci lal kan day yem. kii bu tëddee ci lal na tëdd ci lal kii bu tëddee ci. bu fekkee doole yamul nag. comme genre doole. am na ñoo xam ne seeni aawa ñoom ñoo leen takkal seen bopp dañuy sutura di taaba taaba. ñu gis hmm. benn xale boo xamante ne yàlla ibbil na ko lool macha allah yor na këram yor na otoom. yor na fi muy tëdd ak ni ni mel. waaw kooku alal ala kooku alalu ndaw si la. mais kooku nan maanaam du ñu compter alalu ndaw si. Hmm. moom xam nga lu ñu koy wax. Hmm. lii génn sa poche la ñuy wax ne yemaleel. mais waxuñu liy génn ci poosu aawo bi la doon wala poosu ñaareel bi la doon ak kum ci mën a doon yow daal charia moom li muy xool mooy luy génn sa poos ñaareel bi bu nekkee milliardaire bi def ci boppam dara aawo bi yorul tus dara aawo bi yoree milliardaire ñaareel bi yorul tus dara li ñuy xool daal mooy yow liy génn sa poos charia nee na da koy yemale gis nga xam nga aaya bi lu mu wax daf na fa in xiftum ala taadilu fa wahida bu ngeen demee ba mënoo leen yemale mënoo am ñaari jabar yemale leen ci côté bu ni tëdduwaay benn lal benn lal kee bu mu am kii bu mu am bu màgget kee am bu bees day yem day yemu bu kii am lal buy jar sept cent kii am buy jar deux cent cinquante day yemu alxuraan nag nee na bul dem di wàcc mukk kii nga indaaleel ko di bi kii nga bàyyi ko mu réer ci sombi bi yemu bul nangu mukk rasul mooy yegg mooy wax ba léegi mu ne bul nangu mukk mukk tamit kii nga bàyyi ko muy naan ndox yi kee nga dem jëndal ko beneen ndox muy naan rawatina na ngay wàcc di ko jëndaalee lu sedd bàyyi kenn ki. Hmm. parce que am na góor ñiy def yooyu rasul lépp lu mu wax am na ñu koy def njool màkk nag nee na ku def lii bàyyil xel ne ëllëg yow ma xiyaam doo ma gis doo ma la gis. d'accord d'accord loolu nañu ko suraale. d'accord léegi nag alxuraan daf ne bu dee da ngaa dem ba mënoo màndu yemal ci kenn. waaw oustaz. léegi nag infidèle waa ñëwal. Euh, am na ñu ne infidélité war la. ci laay bëgg a ñëw léegi nag infidélité moom. Mhm. maanaam bu dee góor la bu dee góor. nekkoo leen maanaam comme li xew di génn. Mhm. mais daf la takk ci farata yàlla ak sunna muhammad mhm, ba muy lay takk lu mu métti métti li ci sharia wax laay wax lu mu métti métti bis bu demee ba gis keneen bëggu ko takk. bu ko takkee du infidélité. maanaam. dégg nga li ma maanaam kan am nga téléphone bii. ba muy jafe-jafe jafe yaag téléphone bi sa aawa yaag moom. lu mu jafe-jafe yaag moom. kan dem nga ba amaat loo mën a jëndee beneen téléphone. jënal téléphone bi du infidélité ci bii. d'accord charia la ko may. mas naa wasulaa sabar ba. d'accord loolu charia la ko may. léegi ci wenn léegi nag ñi ko tuddee infidélité. Mhm. seen xool kese lañ lañ lañ topp. waa léegi ñu dem tuuti ci infidélité par exemple kii am jabar ba pare di tromper jabar ji ak keneen te waaju cee takk defu ci dara coro dong la ko wute. mais kooku caaxal la loolu loolu caaxal la. mbaadu looloy wor gi. loolu moom benn wor da ci am deuxième bi caaxaan dëgg da ci am hmm. troisième bi nag ay bàkkaar mu ngi la ciy xaar ndax guur gu am jabar bis bu siqi jigéen bu ko lewul néew buy dox la. Cheyenne rey na ko rey na ko bu yàgg moo tax réew mi nag da ngay gis góor ñuy dox fekk ay néew yuy dox leen. fekk rey nañ leen mais néew yuy dox leen Cheyenne rey na leen bu yàgg. d'accord mais tey bu fekkee par exemple or mi takk kenn maanaam takk ko kenn mais yaa ngi génn ak ndaw sii nga jékki-jékki génn ak keneen nga wor ko wor ci boppam baatu wor oustaz ci islam. waa xam nga wor nag moom nekkul lu baax. Mhm. wor moom baaxul ci côté bu ne. Mhm. loolu tabaarakallaahu waxoon neen ko parce que kóllëre la boo xam ne dañ ko war a sàmm te yàlla nee na matal leen kóllëre yi ngeen séq matal leen ko parce que ëllëg damay taxaw laaj la wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula yàlla nee na matal leen kóllëre yi parce que ëllëg kóllëre dama koy laaj kat ñaari nit bu ñu àndee deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ñu tàqali ko yàlla nee na bu ngeen ñëwee di ngeen ñëw ma teg leen taabul ne leen pourquoi ngeen tàqali ko lu xew lu xew kon kóllëre dañu koy sàmm. muy ci côté bu ne muy ñaar ñuy ànd muy ñoo xam ne tabaarakallaahu dañoo séq kóllëre rek. kóllëre lu ñuy sàmm la. yàlla moo ne wa aw fu matal leen. bil ahdi kóllëre parce que innal ahdi nekk kóllëre kaana nekk na masuulaa di li may laaj ëllëg yawmal xiyaam. bu gaa yëpp taxawee dinaa leen oo yéen ñaar ñu séqoon kóllëre ne leen lu xew. mais kat réew mi ngay gis koo xam ne ku mu ànd ak deux mille vingt deux du ànd ak moom deux mille vingt kooku jikko yee bon wala. koo ànd ak 2023 doo ànd ak moom 2024. muy ay xarit yu bees. mais pourquoi loolu ay xarit yu bees pourquoi loolu. am na ñoo xam ne nag. mais bu doon da ngay am sa xarit yu bees nekk ñoon mais du tee ña nga nekkoon yëpp nga nekk ak sa xarit mais am ñii kii te amaat kii kii te ñii amaat kii kii ñii amaat kii kii te ñii pour la léegi nag bu dee nag koo xam ne tabaarakallaahu yéen ñaar yéenay ànd ni ma ko mën a waxee ay corowante ni ma ko mën a waxee da ngeen ne ci ngoro noonu nag moom doxaan génn doxaan gii gars yi nekkee dafa xaram wax naa ko nee naa leen doxaan dafa xaram doxaan dafa xaram waaye labat xaram doxaan gii ñu nekkee dafa xaram labat nag moom dagan na bu dee la léegi nag baatu labat bi moom lañ ñëw soppi def ko doxaan da ëppal nag da nekk ca yu ca yu xaram xam nga alxuraan def ne xayra musaafihiina xayra musaafaati xayra musaafihiina xayra musaafaati ba demee ca wal mursanaat gis nga alxuraan def ne kan bul doxaan ku la lewul. Mm-hmm. ba yegg ba yegg ak moom fenn fi. fenn fan. ah fenn fi fi gars yi di wax rek. fan la gars yi di wax. fi xaram fi. fu xaram. mais kan. <laughs> maanaam bul doxaan kenn mukk ba yegg ak moom ci yenn yi. waaw yenn yenn yi sas. kan bul njaaloo. waaw njaaloo moom baax. bul tëju. conseiller. tëju gi moom ça dépend oustaz. yow nga am entretien ak sa boss rek da ngay tëju waxuma laaj keneen. mais xale bu jigéen bi ngay génn nag laa wax sa coro bi kat bul tëjoog moom ci néeg bi. boo amee li nga koy wax loo xamante ne bëggoo diw dégg ka doo doo tëjoog moom. tëju tëju. waaw ku la lewul ngay tëjoog moom. oustaz conseil conseil la rek conseil kay amul heure amul waxtu. mais kan sarak ji la gën a yey ci conseil da ngay tëjoog moom boo koy conseil. kooku bokkul kooku kay ci saal bi nga koy taaj. mais booy conse mais kon ban yow ban parce que ban façon conseil ngay conseil. <laughs> conseil yi conseil yi am ful la. yan yan façon conseil ngay conseil kon. baax na oustaz entre parenthèse du ma ci ñëw. beneen bi mooy différence entre labat ak doxaan mooy la différence entre labat labat ak doxaan gis nga labat bu dee moo la ñor. Hmm. kan yi gars yi nekk doo ci nekk. comme yan. iri bu dul jeex. oustaz ñii ñi nag foog ñu xamante ñu soog non non iri bu dul jeex ñii ñam doo ko takk nag. ñi naan dañuy ñam doo ko takk ñooñu ci labal lañ. dañuy ñam ñam doo ko takk. am ku ma ko laaj dama usa mën naa ñam doo ko takk. oustaz balaa ngaa jënd oto nag testé ka. ñam doo ko takk ñam la mooy la mooy la mooy yooyu yooyu noonu yi xewal mooy lan. loolu mooy balaa ngaa góor jigéen ñi nañu xam seen bopp. góor gi taxaw naan la dama lay ñam doo ko takk bu la ñamee dootoo ko gis wala ab ñam la lay jàppee di ñam di ñam rek. di ñam di ñam rek bu demee ba war a takk nag mu xool ku musta ñam dem takki kooku. mais loolu loolu nañ bàyyi xel na loolu yooyu yooyu yooyu demul yooyu demul. beneen bi mooy oustaz. yooyu demul. waa d'accord léegi nag doxaan nag ak ak labat foo koy xàmmee mooy labat bu dee def la ñor kan donc dañuy xam ne def la ñor fii xam nañ kuy doxaan ak kuy labat léegi ñëpp ko xam. oustaz amul différence. nit ki am a am différence. non xëy na mais doxaan trois ans. xam nga kenn mais yow. trois ans ngay génn trois ans labat. labat ak trois ans labat ko tax a jóg oustaz. labat trois ans. lu tax a jóg labat. labat luñ ci bëgg kan. waaw muy muy muy xamante. mooy ci lu gàttal xamante. waaw léegi xamante. waa dé waa déglu ma xamante boo xam ne kan du nekk ay trois ans du dem deux ans. ça dépend ci jigéen sax baaxul amul ça dépend ci jigéen bi un an sax bu jigéen boo fi commencé. maximum labat dem ba mu dem ba mu ne la parewul. ngeen ne ci lan. nga xaar ko. parewul nga ne ci lan fi ne nii ci lan ngeen ne ci lan. ci lan ci lan loolu laban la. nga xaar ko. xaar comme ba sa ban. par exemple day day def nan ngeen xaar xaare. day def bag. mu ne mu ne nga xaar ma ba ma am bag. mu ne la xaaral ma am bag. waaw ngeen ne ci lan diiri xaar bi. ngeen ngeen di pour xamante juste ci xaar bi la. xanaa nag koo bëgganteel mu nga ne ko dama laa bëgg a mu ne la muñal ma tuuti kooku nga mën ko. mais kat fii xam nga xam nga maanaam man yii yii ñu nekkee daal xaw ma lan la. lu ñu nekkee da nga gis ñoo xam ne dañuy toog 6 ans la dañuy xamante doxaan gi 6 ans naan xamante rek xamante parce que mag ñu njëkk ña dañoo rate woon ñëw rek ñu ne ñu may la ko nga dem. ñu gën a bari nag loolu la ñu xool nga dem léegi nag ñu ne waaw ñun force dañuy xamante am ay at hmm. boo amee deux ans nekkoon ak fi ne nii takk ñu ne ah nañ bàyyi ba ci kanam miinante guñ nangam ak nangam dem ba six ans ngeen miinante sëy deux mois mu tas oustaz en général entre parenthèses sëy yooyu ñooy gën a gaaw a tas que sëy yu ñu deux mois xam nga lu waral lool kan allahu akbar xam nga lu waral lool hmm. maa ngi leen di wax ne li ko waral hmm. mooy diggante bu yàgg bi ndaw si six ans la la xam six ans yëpp ci lu la neex rek lu ko neex rek ngay dox xam nga mba mbaraan doxaan bokkul ak sëy mm-hmm. sëy moom ku góor ki day dox ci lu neex lu ko neex ku jigéen ki di dox ci lu ko neex te fuuf sax moom jigéen ki moo war a ëppale tarbiyu mais ndaw su nekk biir këram ndaw si nekk biir këram six ans nga toog di ko neexal six ans nga koy neexal six ans waaw day jàpp ne nag neexal googu moo am fam jëm moom bu ñëwee waaw moom day jàpp ne neexal googu am fi six ans yëpp mu ngi jàpp neexal gi am bis bu ñëwee nag bañ na ko aafira ah, nii nag sëy lii ak lii ak lii ak lii ak lii dana daa ah, àttanu ma ko parce que li ma jàppoon ne six ans yi neexal yooyu moom moo am fii day effacé wu waaye nag bu dee kan da duggu dugg léegi-léegi yàggul takk miinante ngeen xamante ngeen bëggante ngeen bëggante ngeen nobante ngeen kan ñoo takk sëy bi billaahi doo ñëw taxaw ba naan naan lii laal li nag diiru six ans nangam ak nangam diiru six ans lii nga ma waxoon diiru six ans nangam ak nangam usa xanaa am xanaa kay ku la nopp mën laa muñal ci yenn yi ku la nopp mën la muñal kenn gis nañ fi sëy yoo xam ne ñoo xam ne ay mois mois lañ xamante mois ba léegi ñu ngi sëy mois lañuy xamante waaye nobante waaw xam na sëy moom bu nopp amee rek day day jeex. wallaahi nopp nag moom du kenn rek ñaar dañu koy séddoo. sëy moom yow ku góor gi taxaw yii danga koy taxawee. ku góor ki day jël ñett ku jigéen ki jël ñett mu des benn ñu séddoo benn mooy yow ku góor ki da koy tane sëy faaw danga koy tane mais sa jabar bu ne seex rek nga xëy rek na ne te teg lay tànk yow a mais yow góor day joxe dépasse sa jabar da nga koy tene. beneen bi ci des tamit da nga koy wodd. mën ko dëkkoo. am yërmande ci moom. deuxième bi tamit nag ndaw si ndaw si ci boppam mu lay tar tarbiyu di dox say waaw. loo tere mu bàyyi. loo ne waaw mu ne waaw. di dox say bëgg-bëgg comme ni mu ko bëggee. juróom-ñaareel ba nag moom ñoom dañ koy séddoo kii day nopp kii nopp. d'accord mbir mi neex. d'accord. ñu ñu ñu dikkaat tuuti nga nekk ak ndaw si takk nga ko. mais mhm. munoo ko bàyyi. waaw nga ne pour ma noppalu foog ma am benn ma xale xale bu jigéen boo xamante ne mu ngi à côté mais loolu mën naa génn ak moom te fekk waruma ko. maanaam nga nekk ak ndaw bëgg ko nga nekk ak ndaw maanaam nga nekk sa jabar. waaw mais munoo ko bàyyi. ala kulli xaal. Mhm. mais góor noo xam ne macha allah. góor xolam dafa yaatu. mu gis keneen xemmem ko. mu dem ci labat gi ku jigéen ki yëkk. nekk ku góor ki daf ko infidèle maanaam daf koy wor. waaw daw na ko na takk googu rek. non ci ci genre ci labat gi. waaw bu ko yëgee. bu ko yëgee ne daf koy wor takk. bu ko yëgee ne daf koy war waru ko daa ne ci labat gi day takk. d'accord bu dee nag daf ko jël ngir caaxaan comme li nga wax sànq. jàppale ko ab coro nii rek di kii kooku nag moom dafay xaram définitivement waaye gis nga keneen am nga yéene pour takk ko ci farata nag farata yàlla ak sunnay Muhammad te diiri bi nga ko nama takk na moo cay def yenn yu xaraam na moo cay def dara lu xaraam ci diggante bi am nga yéene pour takk ko kan li sariya di la wax mooy nga gaaw nga gaaw takk loolu lañ tey wax léegi nag ki nga xam ne dafay toog naan daf ko war na bàyyi xel na waru ko keneen mooy ñëw rek hmm. waaw na bàyyi xel na keneen mooy ñëw na aawa yi yaatal bàyyi xel na ñaareel yaa ngi ñëw na aawa yëpp yaatal ñu xam na ñaareel yaa ngi ñëw mhm. ñaareel dañuy ñëw de mhm. ñaareel yëpp ngi ñëw te ren nag moom di gis poson ñaareel bu ne ren bii di nga ren mhm. poson ñaareel bu ne di ko gis ñi ma dégg ñu ne ñoo bëgg a takk ñaareel moo bari kan Allah ñaareel yaa ngi ñëw de na aawa yëpp yaatal kër yi yaatal xol yi mën cee dugal ñaareel yi ñaareel yaa ngi ñëw ñi amoon ñaar sax Moussa yow moom sa ñaareel maa la koy. ñu amoon déedéet déedéet man bàyyi moom. déet. ba léegi ñu amoon ñaareel. Moussa xanaa diine moo la ko may. bàyyi noonu mais diine moo ma may. diine moo ma may waaye sa. sama bëgg-bëgg. sama bëgg-bëgg kan bàyyi ma nii rek. Ah, maanaam ñaan nuyu naa lu baax. kan baax kay bàyyi bàyyi ma nii rek bàyyi ma nii rek. kan sinon du ñibbi. bàyyi ma nii rek <laughs> kon kan. ñaareel yaa ngi ñëw nag gaa yëpp bàyyi xel la ñaareel yaa ngi ñëw. Uh-huh. sëf man na mais ñaareel yaa ngi ñëw loolu na ko gaa yi bàyyi xel. d'accord ñi amoon ñaar tamit nañ bàyyi xel ne ñetteel yaa ngi ñëw. waaye ñaareel dugg rek tëj naa bunt bi ni ñetteel du ñëw dañ bàyyi xel ne ñetteel yaa ngi ñëw. tey wala naa yaatal balaa ngaa dugg. waaw dañ la yaatal ba nga dugg yaatalal. Mm-hmm. yaatalal loolu na ko gaa yi bàyyi xel. wallaahi léegi nag tabaarakallaah loolu nekkul infidélité man pour man leneen nga may wax sax leneen. mais loolu moom. du beneen gi mooy yaa oustaz non seulement aawa yu ubbi leen xool yi may ñaari lu ñu ñëw dugg ci kër gi loolu du infidélité. d'accord muy beneen bi léegi ñu génne tuuti ci cadre xam naa ne mënuñu génne à 100% cadre din mi ñu waxi xelu tuuti ñaari nit yuy yuy maanaam yuy ànd dong ànd ñuy bëggante daal. Mhm. léegi ku góor ki am leneen loo xamante ne gis na ko. Mhm. bi mu ko gisee am ci xelam li mu dem. Mhm. muy génn ak beneen xale bu jigéen bokkul ak ki mu doon génnal. Mm-hmm. relation googu noonu nan lañ ko mën a qualifier ci xel dong laa wax nag. ma ma ma dama bëgg ñu ci société bi parce que oustaz. dafa bari ñoo xamante ne waaw bëgg naa ñu dugg société man nag damay ñëw xel waaye d'accord d'accord waaye xam nga euh, alaaqlu man aqala anillahi taala wajtanaba bi saxtihi mm-hmm. te yàlla dafa taggoon ñi nga xam ne dañuy jël seen xel di ko utiliser mu jëm ci charia wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi wa maa yaqiluhaa illa al moo tax nag tabaarakallaahu damaa bëgg wàllu xel gi may yóbbu yooyu ñu teg ko ci charia rek ba léegi dama benn borom xam-xam waxoon ne ma ma laaj ko benn affaire rek ma ne ko mais ci xel donc xel nangu ko mu ne islam laaj ñu suñu avis <laughs> waaw man wax dëgg fa yàlla <laughs> uh-huh. damaa bëgg daal bu ñuy teg ci xel nañ ko teg ci charia xam nga maanaam boo demee xel am na fu muy àtt ci sharian uh-huh. aada am na fu muy àtt uh-huh. mais bis bu nag <laughs> texte bi ñëwee xel day dégagé wu aada day dégagé léegi nag bu aada xel rek desee dañuy jël xel bàyyi aada. ñett taxawaay yi tabaarakallaahu mu am boo demee ci Ibn Asir di nga fa fekk lii mais nag kan tabaarakallaahu comme dem leen ba toog ma toogee fi toogaayu sharia. d'accord damaa bëgg ñu ñëw ci sharia bi rek. lenn daal xam naa ko. góor gi fi nekk jigéen mu métti lool nag ndaw si di muñ. Hmm. bul takk mukk sa ñaareel jël ko teg ne. Hmm. gis nga ñaar yu lu jar a fonk la mhm. sa taaw mhm. sa aawa mhm. ñaar yi lu jar fonk la ñaar yi ñooy kër gi waaye jël sa takk sa ñaareel jël sa aawa sànni na le waaw loolu day loolu yiis gënu koo def yamale leen aawa yeeg ñaareel yi ci kër gi waaw oustaz ndax ni nga bëggee aaw bii mën nga ko bëggee ñaareel bii mais tamit xool benn la waaw xool nag moom xool xanaa xamoo aawa bi ci kër aaw aaw bi sax mën nañ ko gën a bëgg ka ñaareel bi donte ñaareel bi lañ dee takk. Hmm. aaw bi mën nañ koo gën a bëgg ka ñaareel bi gis nga góor nag moom comme xale rek moom ku koy toppatoo lijjanti moom moom moo koy gënal moom. kese moom kooku daal tabaarakallaahu day nekk ku koy gënal. mais nag xoolal sariya xam ne na ne xol day jéng. Hmm. sariya xam na ne xol day jéng. moom xam na ko hmm. waaye def na nag jëf ma bu mu jéng. d'accord. bu mu feeñ sax ci yow bu mu feeñ ca yii. donc nag mën nga gis nag koo gën a bëgg. loolu kenn du ko kenn du ko weddi. d'accord le temps qu'on installe Adji donc je demande la régie bu fekkee ni mën nañ ma tegal vidéo soxna Marème bi comme ne na leen rubrique bi nga xamante ne moom moo ko daal di ameel waaye rubrique bi lee ñu ngi koy woowee cri du donc je pense que avant tout d'abord damay dugal Adji mu daal di dugal vidéo bi aji Adji salaamaaleykum si c'est bon rek juste ñu demee oustaz bu ñu ñëwaatee am na yeneen questions yi nga xamante ne tamit des na. waaye comme que léegi dafay am video ak les questions moo tax ca loola fu mu ne nii damay bàyyi aji nuyoo salaamualeykum aji ratu Thierno maa ngi lay nuyu bu baax a baax ci lundi bi di nuyu oustaz di ko ziar bu baax a baax di nuyu aussi suñu invité yi comme niñ koy defee rek à chaque fois yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo di bàyyi xel tele bi lee di leeral TV ci seen biir émission yor-yor rubrique bi nga xamante ni moom la ñu dippee biir internet comme ni niñ koy defee rek à chaque fois wante nag mu am leneen lu ci yokk muy rubrique bi nga xamante ni moo di cri du cœur muy soxna Marème ngeen ciy àndal comme Thierno rek ñu ciy ànd ak moom tamit muy def ay analyse yu am solo ci biir thème bi donc ñu dem xooli ko euh, bu yembee. ñu vite fait donc la régie si la vidéo elle est disponible vous vous la mettez après ñu xool exactement moom it lan la ci daal di wax. Euh, cri du cœur euh, di leen wax yeeg si leen ci seen rubrique cri du cœur avec Soxna Marème tey ñuy waxtaan ci infidélité mais man li ma li ma gën a marqué. ci infidélité léegi bu buñ koy wax mooy danoo dem ba jaawale infidélité ak polygame parce que léegi ku ci def infidélité ñu ni la surtout ci góor ñi ñu ni la góor nga danga am droit am ñeenti jabar sa diine may na la ko mais nag li ma ci am pour wax ci mooy nañu bàyyi toujours di jël ci diine bi lu ñu arrangé di ko di ko di ko teg pour mën di def lu ñu bëgg wala di def lu ñu neex wala di topp sunu naf su bakkan ndax loolu yàlla suñu borom diglewu ko ku ci nekk ci góor ngay ngay ngay ngay nekk ci diine lislaam am nga droit am ñeenti jabar mais cela ne veut pas diir que foo tollu da nga war di commettre ay infidélité être là à commettre des infidélités jigéen bu la romb nga jël numéro téléphone am dem na ci boo ba nga xam ne dañuy tëdd seen kaw lal seen jabar tëdd seen wet ñu yor seen téléphone di messageante ak yeneen jigéen di wax yeneen jigéen Ah, di envoyante ay foto di envoyante ay vidéo yow amoo temps sax pour xool sa jabar amoo temps pour seetlu sa jabar sa boote jabar sax mënatoo ko gis léegi te yaa ngi fekk yaa ngi yor jabar ju jonk ma macha allah te balaa nga koy xam tey ngeen tàggoo mu dem nga dem ngay doog a rendre compte que ni man li ma yoroon nii macha allah te ngeen bàyyi di di di wéccoo ay ay wurus ak ay përëm da ngeen yor jamaa ca kër gi di ko wéccoog ay përëm il faut ngeen xoolaat aussi seen bopp tuuti jigéen ñi kenn mënu leen jeexal. kenn mënu leen jeexal boo demee ba gis nit koo xam ne bëgg nga ko nga takk ka dem ba gis keneen koo xamante ne lenn nit kii bëgg nga ko bëgg nga ko takk am nga ci droit nga takk ko moo gën ngay wër di foo ñaata jigéen ñoo fi nekk di feebar di am ay infection di yor ay feebar yoo kenn xamul seen jëkkër yi di leen lor di dem ci mbedd mi di ñëw di leen indil ay feebar yu kenn xamul te demuñu dikkuñu ñu ngi toog di sëy rek te yàlla rek tax di suturaal seeni borom kër mais yéen it suturaal leen seeni soxna xool leen ci yàlla ci li ngeen di def dee leen sóoraale seen njaboot gi ngeen am te seet ci yàlla ci li ngeen def ki nga xamante ni yàllaa leen booleeg moom mu toog di leen muñal di leen suturaal fonk leen ko ngeen téye ko te arrêté seen bases yi ngeen di def di dil seeni bopp. franchement parler et c'est vice versa que muy ci góor wala muy jigéen ndax dëkk bi léegi monde bi toll na foo xamante ne ni léegi booy wax infidélité léegi du mënatoo ko yemale sax ci góor kase ndax jigéen ñaa ngi fi am seen jëkkër di infidèle donc yaa a tout infidélité dafa doy waar dafa doy waar te nag du lenn lu dul topp sa naf su bakk yi eh, di leen wax yeeg si leen ci seen rubrique d'accord je euh, pense que naturellement man je suis vraiment visée <laughs> si vous êtes visée parce que Marème Marème Marème donc euh, si vous voyez la façon dont elle s'exprime cela mm. signifie que dafa am loo xamante ne dafa metti ci nit ñi te moom elle a en fait le le comment dirais-je pouvoir boo xamante ne daf koy daal di wax te nit ñi bu ko waxee dinañ ko daal di dégg mm-hmm. raison pour laquelle man je l'appelle une personne boo xamante ne c'est c'est genre c'est une voix pour les sans voix. Mhm. je pense. macha allah macha allah ci kàddu yi mais madame xanaa dafa mer. dafa mer gisoo nañ leen bàyyi. nañ leen bàyyi nañ bàyyi nañ bàyyi madame. mais góor ñi nag la wax ak nag man nag góor ñi rek la wax ak. moom nag dem ba ci cappaandaw bi mu ne nag da ngay gis jigéen ñoo xam da cee wax rek junj rek ba dem. junj mhm. mais pourquoi loolu kat. c'est une féministe. waaw li nga wax nag dama ci ñëw balaa question yi dem. demal mhm. kan polygamie. ak infidélité bi xam nga ñu ñuy wax ñu bañ ko jaawale. jigéen ñi. jigéen ñi la ñuy wax ne leen ñu bañ ko jaawal mais góor gi kan bu ko neexee am na droit am na droit takk ko am na droit pour fasee ne ko takk. maanaam góor jigéen moo war a xam ne infidélité. jigéen ak polygamie bokk. jigéen war a xam ne góor moom la ñu war jigéen moo war a xam ne moom la ñu war a wax infidélité. bis bu nemmee ba na ci sëy xool feneen comme fi nga daanalee junj bi mm-hmm. mais góor gi ne nekk na ci sëy am aawa gis keneen bëgg ko def ñaareel su ko neexee mm-hmm. Marème góor ñi xam nañ ne mënuñoo jeexal jigéen ñi. ñoom xam ne ñoom nee nañ féministe en général. ñoom xam nañ ko nee nañ xam nañ ni islam may na leen ko. waaye naam islam may na leen ko mais bëgguñu seen i jëkkër di ku tudd tout le temps dëgg la nag may nañ leen ko mais xol xol la rek. waaw nañu ubbi seen xol yi nag xam ne ñaareel day ñëw ñetti li day ñëw. ko ni beneen bi wax na itamit benn kooku bu am solo je pense que dina di nga ci ñëw. muy fi muy waxee ne am na ay góor yoo xamante ne dañuy toog seen jabar. waaw te si laa bëggoon ñëw tëdd ak sa jabar di wax ak beneen jigéen kooku jaaduwul définitivement du sax respect nag donte sax moom nga bëgg jaaduwul moom nga bëgg a takk ñaareel muy ñëw ci kër gi jaaduwul parce que boo ko xasoon takk ba mu ñëw araam na sax nga tëdd ak sa jabar toog di am looy wax ak moom jaaduwul mhm. loolu loolu loolu jaaduwul loolu moom góor ñi koy def ñoom la ñu war a wax ne tabaarakallaahu lii ngay ni def jaaduwul bëgg nga koo takk nag ñaareel ah bàyyi nag tabaarakallaahu ba soxna si bañ fay nekk nga wax moom li ngay wax moom parce que loolu moom mooy li jaadu. loolu mooy kii bi parce que bëgg nga takk ñaareel mais nag bëgg a takk ñaareel rek ñu bëgg a taxaw ne da nga infidélité. loolu du takk ba ñett polygamie mais nag lan mooy ay jël jël lu la arrangé ci diina ji mais sharia wax kat. Ah, kooku amul jël sharia moom mënoo matal lépp diina ji moom mënoo matal lépp mais kooku da nga koy jël ni yàlla digalee julli. noonu la digalee nga takk ñaareel ñetti ñeent. d'accord yàllaa digal ci alquran xaafis ala salawaati wa salaati wusa. yàlla digal inna salaata kaana alal yàlla nag moo diggal ne takk leen masna wa sulaasa wa rubaa mhm. moom la de aaya bi de mooy wax ba léegi si aaya fu mu ko rënk alors soxna euh, accord Thierno ci vidéo gisee rek xoola ma naan la soxla Marème sax aji <laughs> aji ci vidéo soxna Marème bi mhm. mm, donc euh, ci lim ci wax vous avez mhm. vu le ton Euh, qu'elle a utilisé surtout ngir wax ak góor ñi. Mhm. oustaz gis nañ sama bopp comme ni nga wax. xam nga xam nga euh, Thierno dëgg moom. dëgg du neex. dëgg du neex Marème ni mu wax yëpp dëgg la parce que boo xoolee euh, keroog maa ngi déglu journal surtout nag surtout ci côté. ci côté góor ñi la ëppee oustaz. Ah. parce que keroog maa ngi déglu journal am koo xamante ne dafa sax jóge màkk nekk ci kaw lalam ak beneen koppinam jabar ji ñëw jabar ji ñëw di ko wax mu jàpp ko dóor ko hmm. xoolal loolu loolu li ki ko def góor moo ko def sax kaalam ni mu trompé jabar exactement góor moo ko def fekk ci beneen ak beneen jigéen euh, oustaz xanaa xamoo ne jigéen ñu bari ñoo ngi dee lenn moo leen rey guwaat di dund lu méttee métti ci seen biir kër yi te lenn mooy problème bi gis nga jigéen boo xasee ba dugg ci mariage amatoo droit def yenn yi wala dem di uti ay copain mais góor tey loolu permettre nañ ko ko parce que dafa dem léegi ba nekk ci ñoom da ngay gis seen groupe yi sax dañuy toog di la nëbbal loo xamante ni yow ñu nekk ak sa jabar di la nëbbal say ger nit dafay ñëw sa kër ñu xam ne carrément kii sa copine la moo ngi ci mariage yi moo ngi ci màggal yi moo ngi ci lépp nit dafay ñëw sa kër ñoo xam ne kii sa copine la mais say xarit ci boppam dañ la koy nëbbal loolu du infidèle te loolu te loolu te loolu jigéen jigéen ju am xel jigéen ju am xel <laughs> du ko Ousane nee na loolu pour mu xamaale kër gi la comme que dañ koy takk comme dañ koy takk mu xamaale kër gi Ousane loolu am na solo mu xàmmeewaale aawam parce que nga xamante ne bu ñu rombante ci marché bi xam ba xam xam ba xam aawam kii <laughs> mu xàmmeewaale mu mën koo nuyu mais nag da muñ da ngay muñ da ngeen di muñ rek muñ rek bés leen. Ah, ah, ah, lan laay wax lu dul loolu lan laay wax lu dul loolu lu may wax lu dul loolu pour ñu xamante. soxna ma ne ah ñu xamante. soxna ma ne mu ngi dee waaye nag waaye garaaw nag da ngay muñ wax dëgg fa yàlla. ñu xam ne pour mu xamaale kër gi la oustaz loolu nag lu am solo la. parce que des fois je vous jure. des fois da ngay am sa benn cousine boo xamante ne mu ngi génn ak sa jëkkër wallahi la azim mu ñëw ci kër gi. Mm-hmm. su tuur amee mu ngi fa su ngénte amee mu ngi fa su lii amee mu ngi fa mm-hmm. ndekke yi moom ak sa jëkkër am na feneen fu ñuy gisante moom bu ñëwee nuyu la comme si sa doomu ndey la nan la jànq def nga ba mu baax nan la li nga sañse lan la nga romb mu ne la kan miinante avant aw ak ñaareel du am loola genre fu may bëgg a waxee muy yenn saa na góor yi def fu salte yoo xam ne yaa oustaz wax dëgg fa yàlla man en tant que mec je vais pas cautionner ça muy ngay génn nag par exemple cousine diw ci wala copine diw ki te wallahi azim yàgg sa copine nii ngeen def sa copine di jël sa jëkkër di ko dawal ngewel te xamoo ka dawal ngewel alors que seen kër sax fa waaw lu ñu joxe dépense yoruñu ko fi ñuy gisee yow yow yow sax wallahi doo fa dem ak sa jëkkër mhm. ñu ngi dawal lu garaaw loo xamante ne ak sa xaritu maanaam yow yow yow ak ak ak ak sa xarit mhm. sa maanaam yow sa xarit mu ngi dawal ngéwél ak sa jëkkër waa kat loolu mën na am mën nga gis koo xam ne sa xarit la sa jëkkër jaar fa ki yaat ci suuf yooyu yëpp mën naa am. mais fekk labat gi lañ wax. man labat man labat laay wax waxuma labat laay wax de man labat laay waxee gis nga maanaan ki nga xam ne moo ngi ñëw ci ngénte gi kénte bu amee mu ñëw. wala mu bokk otes bu ñëwee di nangam. bokk ñëw nangam ngeen di daje. mu osé ngeen bokk otes yooyu yëpp yooyu yëpp mën na ko. mu lay xool mu muy xaritu muy xaritu rakk jëkkër bi ci kër gi. muy sa xaritu njëkk. yëpp mën naa ne ñëw mii leen teg yow yooyu yëpp bu dee nag dañ koy takk ñaareel pour mu xamaale kër gi bu dañ koy takk ñaareel jigéen loolu mën a nekk kat. maanaam kan kii da ko bëgg a takk xale bu jigéen bi sa aawaan ci kër gi. mën na jël beneen xale donte sax moom mën. Ousseyn mbaa dina antu nga ñëw jël sa aawa ne ko sa sa ñaare la ngi incha allah nuyu ko mbaa mbaa mbaa. mu ne waa diw mi. Ousseyn kii kii. mais fekk booba xamante ne nag ba pare. waaw mais betteel gën a fa lay amee est-ce que xam nga ñu gën a bari est-ce que xam nga ñu gën a bari lu tax ñuy ñuy am lu leen naqari muy maanaam ñaareel gi da leen di bett betteel gi mooy yaakaare wuñ ko ci diw mu feeñ ci diw bu feeñul foofu feeñ feneen am na benn mariage am bu office am na benn vidéo bi ma seetaan entre parenthèse kooku xaritam xaritam benn bakkan la jëkkëram takk ba pare bu ko naan yow yaa ma sañ def li xool ma ci bët lu mooy lu doy waar oustaz. oustaz góor may nañ ko nga takk waaye nit da ngay nekk nit oustaz. loolu xam nga lu tax loolu moom xam nga lan loolu moom dafa jaaduwul ndax xarit moo moo kéemtaan. Mhm. te kóllëre dañ koy sàmm xam nga xarit bu ngeen nekkee sa lépp nga di ko ko wax nga xëy xëy gis ko sa jëkkër. fekk sax même boo amee lu la métti dëgg-dëgg sa biir kër. doo ko wax sa mag doo ko wax sa yaay moom nga ci waxtaan ak. Mhm. kooku bis boo gisee taxaw nag mu nekk ak sa jëkkër sa xol mën na dagg. loolu da lay rey mën nga yàqu ci loolu nag moom jëkkër ji la ñuy wax ak moo dugg ci yu bon. parce que nag waa ji waxoon na ne bul wóolu nit ñi dafa la. naan kii jëkkër ji mën naa dugg ci lu bon yow yow ku jigéen gi nga ah am valeur nga xam ne kii. jigéen ji bon na jigéen ji bon na mais góor gi xam na ñii ay xarit la mu am yu muy nekk. góor góor la oustaz parce que xoolal kan kan. aadala odd wi àddina man wasirtu bihi fa asiru naasi wasxabhum ala daxali kat ba nee na aadala odd wi ku gën a nekk sa noon addinaa man washatu mën na la gën a jege ngay ngay ngay ngay ngay dëgërlu ci moom waaye am na luy xew rek da ngay xam ne mooma mu ne fa xaasir maytul annaasu nit ñi wasxabhum ala daqali nga ànd ak nit ñi ci tee waaye ku nekkul sa xarit nekkul comme yi nga tudd jege la benn jege bi ah bu ko neexee nag ay xaritam mu présenté leen ñu xam ko nga nekk awo bi ci kër gi bu ko neexee mën na ñëw xew ci kër gi parce que nag bëgg nga koo takk pour mu miin kër gi loolu pour mu miin kër gi la. mais oustaz nit ñeeg yooyu yooyu yooyu dara du ci gis nga gis nga nit da ngay nekk nit lu jaadu ñëpp a ko xam. surtout ci jigéen xanaa xamoo tey euh, jigéen ñu bari ñoo ngi soxor seen góor moo seen jëkkër yi ñoo tax ñu soxor parce que yow nit ki di nga am foo jaar ak moom présenté ko ku jigéen ba mu jël def ko boppam balaa maa dee nag ñu naan sama jigéen la jàpp ko yow nga jël ku jigéen ki jàpp ko taf ko ci sa bopp mu xam li ngay souffrir li ngay dund sa biir néegu sëy nga xëy un bon jour rek takkal ko nit ki kooku tey bu demee ba soxor andi andi euh, rancunier seen diggante kooku yaa ko poussé mu def. loolu kooku moom xanaa oustaz jigéen bu ko def moom bur xaar nag wax dëgg yow góor bi ko def bur xaar sa sa kër neex de. Hmm. kooku man kooku man kooku li may wax mooy kooku man waxuma ko ne ko li nga def jaaduwut ak nanga man daal li may wax mooy góor gi ci bëgg a takk ñaareel sariya may na la nga takk ñaareel may na la nga takk ñett may na la nga takk ñett waaye nag def ko ci mu rafet. Hmm, na rafet def ko ci mu rafet bul ñëw tabaarakallaahu xool koo xam ne def na sa jabar nii nga ne nii parce que nag da ngay gis ñoo xam ne dañu naan ah comme ay xale leen rek su ma leen takkee dañ gën a xaritoo ci kër gi far nag takk am noonoo am kii jaar nii kii jaar nii parce que kii def naan ko nag ma war a lii lii doo ma ko mën a waree nangam ak nangam ba yeneen am ci mhm. yooyu nag bu fekkoon kee di xaritam mu am lu mu koy wax bu xuloo amee rek mu sa sa sañax ko benn. d'accord bu xuloo amee rek mu sañax ko benn moo tax yooyu nag tabarakallah bu nekk lu rafet. <laughs> d'accord alors nous voilà ci dix minutes yoo xamante ne euh, ñu ngi ko doon accordel ki nga xamante ne moom mooy soxna Mariam ci rubrique am bii di cri du cœur alors nous directement aussi ci question yi nga xamante ne dañ koy daal di poser saa su ne. Adji y a des questions yoo xamante ne ci mbir mi la lay lay dox muy thème bi le ak wala oustaz directement mu répondre à des questions. s'il s'agit vraiment de cela allez d'accord ñu doore ko ak première question bi kii nag moo ngi posé mu ne oustaz lan la islam wax ci koo xamante ne dafay mbaraan. lan la sariya wax ci kuy mbaraan. Mhm. aw kooku daal li ñu koy wax mooy alal ji ngay lekk nag jaaduwul mbaraan gi nga dëkkee jaaduwul. Mhm. parce que yooyu mbaraan mbaraan nag jaaduwul lañ génn ci mbaraan yi ñu fi mu nii nag moom góor ñi sax ñu ngi mbaraan. Ah. góor ñi fi mu ne nii ñoo ngi entraîné na ba ceene njool ca kaw. gigolo ñoot bi ay fas di mbaraan. yooyu jaaduwul nañ bàyyi mbaraan mbaraan gi ñu nekkee moo jaaduwul mais da nga gis jigéen ñoo xam ne kan wax naa ko waxati ko bañ amee 17 ans ñu ngi mbaraan ba am 37 ans te pare wuñ pour sëy mhm. mbaraan jaaduwul nga gis góor goo xam ne nekk nangu nañu koy mbaraan xam nga weesuwul bon weesuwul nga toog ci biir kër gi événement jot tëbaski wala màggal gi sax nga xam ne ñu ngi ci waaj ñëw waa famille bi di dajaleem nag bu ñu war a yóbbu wala tabaski ñuy lijjanti xar mi matugul nga yor sa soixante-quinze mille francs ne patt ci kër gi ci kër gi yoroo sa papa génn di rey boppam nga jël cent quinze mille yu yónnee ko sa coro moom ba daan soixante-quinze mille francs yi jënd ci sëfa bu ci xajee laal ci benn bëdoog benn bëdeeg benn jiin bis ba jot mu mag maquillage ci romb biisu la jàll dem nga am ci benn biisu kese. léegi nag ñu naan daa tàlli daa tàlli sama dof bi di ko duur di ko duur sama dof bi daa tàlli di ko duur di ko duur ba kañ. góor ñi nañu yeewu gis nga jigéen ñu ci bis ñi nga ñi nga jigéen ñu ci bëri fi mu ne nii mbaraan gi ñu nekkee dañ ko bañ ba dañuy créer ay ordonnance ordinance boo xam ne billaay am na trois ans ñu nekk ak bi rek. toujours ñu defar ordonnance non am na ñoo xam ne sax dañuy defar ordonnance boo xam ne date bi ak heure bi lépp ci la te fekk dara toujours dara amu ca toujours kan ñu defar ordonnance man docteur kan bi na ordonnance ba tàyyi toujours ñu régler ordonnance mhm. di dagle ay ordonnance sama lii sama feebar bi nii sama lii nii gis nga fa ñu xàmmee ni jigéen bu amul sa jot bëggu la surtout am na benn docteur bu nekk ci kër gi monsieur Ba waaw. Euh, mu ñu ngi koy woowee Pape Maguette Ba kooku li mu joxe ci ay ordinance ci kër gi. ordonnance waaw. bind ordonnance di jox la ne la. Ah, waaw waaw. yooyu mooy docteur Ba. ah docteur Ba de boobu ngay def moom <laughs> tubaab beneen bi ci des. gis nga maanaam jigéen. fi léegi sa jot bëggu la. waaw. Mm-hmm. koo xam ne boo ko woowee mu ne la may ma dama jàpp sama yaay nii man bëggu la. xamal ne xamal ne kooku moom xamal ne bu àdduna du neex ba mu la bëgg. bu amee soxla ci yow rek nga koy dégg danga naa bàyyi gëj naa laa dégg démb xaar naa la nangam nangam fekk moom ci boppam xam na ne moom mooy def loo tax doo ko woowee ñaan la crédit wala connexion boo ko ko mayee dootoo ko da ko koy may rek mu ne waa may ma tuuti ci kanam naa la woo ki bëgg la koy woowee ji dëgg pire ki bëgg moom la koy woowee ji loolu nag faaw ñu xam ko léegi nag bu dee yow góor yaa woyadi nangu jigéen ñi def la dof naan sama dof bi di la mbaraan duur di la mbaraan duur yaa ko teg sa bopp jigéen fi rek heure bu la woowee rey baat bi dee sama lii sama lii sama nangam nii dooma may lii dooma may lii dooma may lii kooku bàyyi xel ne bëggu la ki la bëgg dalay bàyyi li nga yoon nga dege ne ko ngir mën ko takk nag wala turit wurdan min man yara ànd ak mujj taw ilaa falsihi abu seydi nee na bul yaakaar mukk jigéen fi nekk toujours heure bu la woowee rey baat bi naan sama lii sama lii nga yónnee ko mu def ci poosam bul yaakaar ci moom bëggee bëggu la li ne sa poos moom la bëgg di la dóor naan sama dox bi ngay joxe rek ba kañ. lañ ci yàlla musul. mbaraan gi gaa yi nekkee nañu ko génn. léegi nag góor ñiy mbaraan nañ ba mbaraan. góor ñii mbaraan kan naan du ma ko jigéen jigéen ju yor dara rek jigéen juy liggéey laay xool man mbaraan ko dem sama yoon aw ma jot di di génn jigéen ju amul dara cas social du ma génn ak moom ki may xool daal mooy ku baax la yor oto ak nangam ah. mais mais yow mënoo doon cas social ba pare mm-hmm. ngay wut cas social yaa xayti salaamaaleykum yàllaa yàllaa fi ne waaye ñun islam may nañ ñu labat ci alal. te dañoo ba foofu ma ne yàllaa ci ne. Ah. yàlla moo ne. Ah. yughnihumullahu min fadlihi. Hmm. yàlla moo ne boo ñàkkee in yakunu fuqara bu dee dem nga ba ñàkk. yughnihumullahu min fadlihi nee na bu ngeen ñàkkee bu ñàkk tawee sëy bu ñàkk tax ngeen bañ a sëy bu ngeen ko defee yughnihumullahu yàlla moo leen ni koomalal. Hmm. la mooy ay cas social du ma doxaan cas social. oustaz yow yaroo lu bari ñoo ciy gis ñuy doxaan ay boromu oto nangam ak nangam yor nen wax dëgg fa yàlla bu ñu takkee lu luñ ko mën a yore yooyu am na yoo xam ne moom caaxaan na rek ñu nekkee ko dañuy doxaan waaye bu doon takk sax ngay wax takk d'accord mais ñoom dañ koy mbaraan kat mbaraan ñun ci mbaraan gii la ñuy wax mbaraan oustaz am na ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg ñu mbaraan leen mhm. wallahi lazim kaay mbaraan ma lañ ngay dégg kaay mbaraan ma jëlal sama numéro mbaraan ma yaxayti kooku moom. am ñoo xam ne da ngay ñëw 200000 euh, euh, lañ lay nuyoo cash. kooku moom ku jàll ko kan. <laughs> kooku kooku ku jàll ak moom ca kaw lal ba la bëgg. ah waaw loolu mooy finalité bi nag. waaw ku jàll ak moom ca kaw lal ba la bëgg. loolu mooy vite fait pour la deuxième question je pense que. ok heure baa ngi dem. Mhm. ñu ñëw ci euh, deuxième question bi moom nee na oustaz ku am jabar ba pare infidel yan daan moo la ci mën a fekk. temps nga am jabar ba pare di doxaan. waaw nga am jabar nag di doxaan moom bis boo sëyee sariyaan rey na la. mais même bu fekkul sëy léegi nag bu sëy amul. dafay araam nga nekk di doxaan loolu moom muy ko am jabar ko amul jabar dafay araam nga nekk di doxaan mais nag bu dee da ngaa dem ba bëgg a takk. sariyaan may na la nga xool ki nga bëgg gi jël ko takk indi ko ko infidèle du ci am sax ba ay daan di ci am mais nag fi lay fii daan di amee mooy yaa ngi jël coro bi comme li nga wax sànq. Mhm. da nga jël nii rek teg ko nii def ko nii rek yow. di fa féexloo kese. di fa naanee ataaya. di fa naanee ataaya am am na ñu mën ataaya. di fa def loo defar loo ay ay ay ganaar kese. Mhm. mais yow fas yéene woo takk. kooku charia daf la fay daan. lif la fay daanee mooy caaxaan moo la fa teg. Mhm. boo sëyee sax ak moom charia rey la far. ne la fi ne war a rey. Mhm. mooy li taxaw bu dee daan boobu moo ci am. mais nag cadre nag tabaarakallaahu nga bëgg ko takk nii nii rek charia may na la nga takk ko. nga naan di fa ataaya. Oustaz nee na nga naan fa mais jigéen ñi xaaj bi yëpp léegi borom jabar yi la ñuy wër. waaw dañoo bëgg nekk ñaareel rek. ah déet loolu. dañoo. <laughs> Ah, du loolu. dañoo bëgg dañoo bëgg nekk ñaareel rek. soxnaa ji lu waral jigéen ñi lu waral jigéen ñi bëgg les hommes mariés pourquoi. parce que ñoom souvent duñu am jot te jigéen ñi bëgguñu ku leen di dérangé te ñoom ñoom seen woote du bari man gis naa ci ñoo xamante ni am na koo xamante ni. toog na seen biir kër euh, borom jabar ji nekku fi mu woo ko ne ko suñu kër dafa tàkk mu yónnee ko xaalis genre yooyu ñoom li ñu bëgg ci li ñuy am ci xew yeeg programme yi ñoom ñoo leen ko mën a jox comme li ñu doon wax tout ci affaire mbaraan te góor ñi nga xamante ni ñoo marié souvent ñoom rek ñooy def farata ma euh, célibataire yi amuñu benn fulla célibataire baaxul célibataire moom xam nga waaw ah, loolu loolu mooy loolu moom mooy bëgg ñu takk leen ñaareel rek xam nga célibataire Paa Omar ngay waxal wala Jeeba xam nga célibataire boo xam ne daa parewul pour takk eh, kii eh, de Paa Omar la célibataire bu parewul pour takk nga ànd ak moom di génn kan attends yow kan kan nga ci waxal Paa la wala Jeeba nga ci waxal non Paa Omar du ma ko wax loolu kan la <laughs> célibataire la di <laughs> yal nañu yàlla musal ci loolu allez-y euh, va directement à la troisième question. je pense que fu mu ne nii moom am nañu ciy <laughs> ñu ñëw ci euh, troisième question bi moom nee na maa ngi nuyu ñëpp oustaz ku am jëkkër. ba pare am far mën ko ci maara day taal. Mhm, am jëkkër am far moom dara gënu ko yées. kooku moom subhanallah. wala moom tabaarakallaahu dara gënu koo yées. kooku am jëkkër am far te nag dafa fees del ci réew mi nag kan. Mhm. man yi ma ciy jot. yu mel noonu dafa bëri xees del oustaz est-ce que du seen jëkkër yi tamit moo leen mënalul dara. non ka kan sa jëkkër bu la mënalul ba dem ba ba mënaloo dara tous tous li nga xam nga loolu ba boo demee ba mënul dara mënul lal baak yeneen yu caaju sariya mën na la may nga taxaw ñëw ñaan baat ñu may la ko nga dem ci ñekk mais bul nekk mukk naan da ngay farantu mhm. mais am jëkkër di farantu maa la day taal ah loolu moom subhanallah loolu loolu loolu xel dong mayu ko waxuma la loolu loolu dara gën a ko yées. loolu xel dong mayu ko waxoon ak islam. loolu dara loolu dara a ko yées dafa ñaaw dafa ñaaw. loolu tabaar boo demee ba bëgg tul ba bëgg a too. ñaanal baat sariya may na la tabaar may na la nga ñaan baat takk dagan na fase dagan na. may na la. sariya may na la. Mhm. nga ñaan baat dem na ci leneen. comme oustaz keroog bi lu mu wax. waaw nee bu fekkee sa maanaam sa góor mënu laa satisfaire naam sax góor la. mais mhm. mënu laa satisfaire. may nañ yow te nee na nag lu dëgër la lu dëgër ak gu dëgër la pour nga ñaan baat. d'accord loolu may loolu may nañ la ko. may nañ la nga ñaan baat tabaarakallah mm-hmm. waaye nag bu bul yegg ci. Mm-hmm. Mm-hmm. wut far nag wax dëgg fa yàlla. d'accord waaye loolu noonu la da gis koo xam ne ma nga Europe. wax dëgg fa yàlla toog fa di rey boppam. nga gis jabaram bi ci kër gi mu bàyyi muy farantu bu dul jeex. Mm-hmm. keroog waxoon nga ko fi. yooyu kenn xamul lan ñu fi bàyyi seen i jabar yi ñu fi bàyyi seen i mm-hmm. bàyyi seen jabar dem toog fa yenn at yeeg yooyu. wala nga toog fa tabarakallah lu ëpp six mois yooyu acte bi ci war wax naa ko waaye boo demee am far boo demee nag ba bul am far xam nga looy def yow xale bi xamul dara nga xamal ko xamul dara nga xamal ko lu mu xamul woon yaa mu ngi nii xale la nga nga nga xamal ko lu mu xamul woon nga dem bàyyi ko fi ak kumpa googa. Mhm. jigéen day yëg boppam. kan bu yëgee boppam mu toog. loolu ak mu yëg. waa dégg waa déglu ma xam lu ko lu ko war fi ne nii. Ah. bu demee ba mënul muñ après six mois bu ko moo xoolee na xool jëkkëram ne ko may ma baat mu may ko baat mais. am far am jëkkër am far amul fu ñu koy musal la yele sa jëkkër bu toogee dix ans lenn rek moo la wax mhm. ñaanal baat d'accord waaye far. far la far la tabaarakallah loolu loolu dara dara gën a ko yées. <laughs> ne ko far ah, la ca yonent bi waxoon nag ci xaddis. Mhm. am jëkkër am far. nee na bis boo duggee biir bàmmeel du lay njëkk a teew jaanu ñàngoor la. waaw. na moo lay njëkk a teew. loolu xam nga ne loolu dara gën a koo garaaw. mais jëkkër am far far bi ëllëg. jaanu ñàngoor moo fekk biir bàmmeel. Mhm. nga bàyyi xel la nag moom sa sa bàmmeel nag moom. dañ fa am far te jaanu ñàngoor lay doon. mais oustaz ku góor ki topp jabaru jàmbur yi nag. góor gu topp. jabaru jàmbur. loolu nag tamit nañ bàyyi xel ne dafa araam parce que da gis góor ñoo xam ne mus naa ko fi wax. Mhm. du ñu nangu xool mukk lu dul ko am lu dul ko am jëkkër la ñuy xool. fokk benn fokk benn ba tamit. Mhm. teg ko ca. d'accord ñoom lañuy nangoo xool duñ xool ko amul duñ xool mukk ko amul jabar. waaw parce que bon peut-être wala sax ñoo xamante ne genre dañoo marié ba wala ko am doom. xëy na d'accord yooyu yëpp am na mais da ngay gis koo xam ne da gis koo xam ne it dafay ne ci kër gi jëkkëram bàyyi ko ci appartement voyage am ku fay jaar di mbaxal la waaw di mbaxal di ataayew waaw yooyu yëpp tam nag yooyu yooyu yëpp nag tabaarakallaahu dafa xaraam xaraam définitivement yooyu nañu ko bàyyi baaxul d'accord bi moo nekkoon Thierno dernière question bi <laughs> waaw moom trois nga yem yeggoo ba quatre yeggoo ba cinq. Euh, <laughs> yooyu yooyu yooyu Pamar bokk ci mm-hmm. ah euh, yooyu bokk ci mais je je pense que c'était la dernière question. si d'accord super alors tàggatool ñu dem ci deuxième partie bi directement. d'accord amoon contentement euh, comme niñ koy defee rek tous les jours seen émission bi lee euh, di yoor yor ñuy poser ay questions rek yu am solo oustaz aussi euh, di ko répondre doon am mbégte ak bànneex wante juste balaa ñuy terminer may souhaiter happy birthday sama ñaari jumelles yooyu Asulaay ak Antalaay ñu nekk ñoo xamante ni ay nit yu baax lañ vraiment adorable maa ngi leen di souhaiter happy birthday ci turu suñu waa groupe yëpp di leen ñaanal. ñaanal gudd fan ak wér. alors je pense que cette Antalaay même man je vais la souhaiter happy birthday Antalaay à toi Antalaay Astulaay ah. Astulaay Antalaay. Mhm. ak Aji Laay Fatou Laay yéen ñëpp maa ngi leen di souhaiter un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe merci beaucoup en tout cas. et à demain inchallah. d'accord merci inchallah. beaucoup alors vite fait. tabaarakallah uh-huh, tabaarakallah le temps que ñuy ñuy euh, dugal jingle après ñu préparer directement comme je vous ai dit Leral TV au cœur de l'événement Magal Touba Guilé bu fekkee ni itamit euh, régie ligne bi spot yi disponible na nga tegal ma ko ñu xool ko le temps qu'on installe nos invités. ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun màggalub Touba 2023 Leral TV leeral FM ak Leral point net fas yéene ànd ci ak yéen gunge leen lu ko dalee benn fan ci werub safar ba bésub màggal groupe leeral Média dugg ak yéen ci xolu Touba ak mboolem fu ñuy màggale ak fàttaliku liggéey bi Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Khadim def ci yoonu géej gi Leral FM Leral TV Leral point net fas yéene dikk ak yéen ci ay reportage ay plateaux spéciaux ak lépp lu màggal gi laaj premier safar ba màggalu Touba groupe leeral ànd ak yéen ci santale Serigne Touba sunu borom leeral ak yéen Ila Touba rekk bismillahi lillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun xarajtu yowma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fi saxri safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sunu góor ga jàmbaar ja cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul génn ngir liggéeyal soppem ba génn ngir liggéey lu boromam subhaanahu wa taala ba tax at gu jot ci Sénégal ci monde entier ñuy màggal 18 safar ba tax Leral TV ñëw ak yéen ci ay plateau spécial ay émission yoonu màggal ay interview ay reportage bis bu ne da ngeen am ay émission yu am solo ci Leral TV yow mi am safar ne fi nga ne bëgg leeral ñëw couvrir la safar leeral ubbi na la suñuy bunt dinañ leen fekk ci seen i koñ yow mi soog a démarré ki ray nag ak ki rey ak ki defar ñoo ngi la leeral yamale daañu ñëw ba seen i kër ak seen i gox ànd ak yenn ci safar gi safar gàngoog ak groupe leeral média leeral TV leeral point net et leeral FM daañu leen buggee daañu ànd ak yéen di leen may ay cadeau yu am solo waaye rawatina yow mi nga xam ne mën nga ñëw woo ci suñu suñu service commercial contacté ñu gaaw ñu ñëw jaay la suñu marchandise leeral TV mooy télé askan bi daañu ànd ak yéen ci màggal gi jërë ngeen jëf. teew la ngi leen daal di wax ne à chaque fois comme Leral TV au cœur de l' événement événement gaa ngi noonu à chaque fois itamit nii lañ koy daal di amale mais nee naa leen euh, Leral TV ab équipe bi nga xamante ne déjà ñu ngi sur place ay reportage yoo xamante ne ñu ngi ñu koy daal di def waaye situation déjà muy euh, Touba ni mu nekkee fu ne nii gan yaa ngi ñëw ndànk-ndànk comme ni ngeen ko gisee noona waaye tamit nee naa leen euh, c'est l'occasion yéen ñi nga xamante ne yor ngeen ay produits ay boutiques wala lu mënta doon ngeen bëgg koo fësal ci màggal gi lee ñëw leeral TV ñu defal leen xéewal ndax en promotion lañ daal di nekk ca loola yaa oustaz tey ñu am ñaari invité yu am solo Serigne Tafsir Niang ak Serigne Ndongo muy loo xamante ne wax dëgg fa yàlla dañ ci bég lool yaa oustaz ñu bàyyi la ak ñoom. bismillah waaw tabaarakallaahu macha allah ñu nuyu nag tabaarakallaahu kan suñu gan yi. jéggul leen nag tabaarakallaahu ci toogaay bi ndax xam naa ne toogaay bi yàgg na ndax wax dëgg fa yàlla ñoo ñu fi jiitu sax tabaarakallaahu macha allah. ñu teel a ñëw ngir émission bi sëñ Tafsir moom jafe lool tabaarakallaahu waaye fexe nañ ba indil ko téléspectateurs yi tabaarakallaahu ñu jàkkaarloo ak moom ngir mën a dund seen safar ngir mën a dund tabaarakallaahu Cheikhul Khadim maa ngi nuyu nag jëy jëy électronique bu Dakar Saly tabaarakallaahu salle de vente ñu nuyu ko bu baax jox ko wàccuwaayam tabaarakallaahu jëy bu cheikhul xaddim nuyu nañ la borom borom borom téléphone yi borom marque iPhone yi borom tout tabaarakallaahu xam naa nag yow géey sama sama sama sama sama kii doro bu boo paree di nga ko changé insha allahu taala ñu nuyu ko tabaarakallaahu léegi nag dañuy dugg ci deuxième partie bi kan deuxième partie bi nag dañuy dugg tabaarakallaahu ci Serigne Tafsir Ndiaye bàyyi ko mu nuyoo bu mu nuyoo rek ñu dugg ci Serigne Ndongo nag xasida yi jukki insha allahu taala bisimilah Serigne Tafsir wana kullu zi ilmin wa saayin wa rutbatin an il mustafa fi xulqihi alxaaisi alolwi wa man yasir li siwal maaxi wasilatina fa sayruhu inda ahli sayri kalxatani xarajtu yowma sabti saamin asar li xidmati almuxtaari fi sahri safar jërëjëfe sëriñ tubaa eskey sëriñ tubaa cey sëriñ tubaa jaaraama maam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridine oustaz dam ñi ngi am mbégte di am kontante lool di la siyaar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal ak tawféex naka noonu yit euh, sëñ Thierno Kane ñi ngi am mbégte di la topp jamono bu ci nekk di ñaan suñu borom defal la tawféex gu yaatu ci barkeb sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu la ñuy siyaaree soxna aji rafet na taxawaay bi ñu ngi lay ñaanal ak tawféex waaye di siyaar sama xarit sama soppe alaaji ndongo kenn di ko ñaanal ak tawféex jërë ngeen jëf jërëjëf tabaarakallaa sëñ tafsir baarakallaahu macha allah ñu fay la ñun ñëpp baarakallaahu macha allah xam naa nag tabaarakallaahu dañuy dañuy bàyyi sëñ nonga xam nga sama gars yi tey dañoo sañce lool baarakallah macha allah. dañoo ak ak weexaayam bi mais safar gi nag safar gee ñëw. Euh, ndongo daal nëbb nga ma sa bopp xaw ma daal man xaw ma mais bii moom da nga ko fii bàyyi. xaw ma safar gee ñëw nag fi ne nii. ñu ngi ñu ngi ci safar bi. ah sëriñ Tafsir tamit macha allah ak li mu def. baarakallah trois pièces yi la ñuy woowee trois pièces teg ci koppati. macha allah bëgg naa loolu mais nag Cheikhul Khadim jar na ko. tabaarakallah te tey nag xam naa dinaa dégg lu ma gëj a dégg. tey tey bisu sant allah wallaahi bisu sant la <laughs> kon nag sëñ Ndongo sëñ lay bàyyi tabaarakallaahu nga ubbi xoolal foo ni la neex ci xasida yi rek mm-hmm. nga jaar fa bismillah sëñ Ndongo bismillahi mm-hmm. rahmani rahimi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbal alamin مع الأمين والأمين وانخاد ذكر الأمين لكالكلي والجسد ناجيت سال أرسل أسيب بالأب ما دور النسيم ولي كان بالأسيم وسدني عن عزدي نعى بتويد الأرض قلبي يا رب المنتخب ولم يكن عدلا في سفري وبلدي إلا يخاد في سفر خلي وغيبي بسفر مستغنيا أني نفر بجنده في خلدي لم يلوني مبارسو وفيت ربي بارسو إبليس لا يبارسو جند العزيز عدي لم يلؤني من اغتراد أو من لقلبي مراد ولي يقود في الخرل ربي ما لم يجهدي الله كان لي بما الله كان لي بما الله كان لي بما الله كان لي بما يقيس لا نسب بما xaadan wali utal bi ma xaada wa xayra raqadi addiyati laayul mu'in zaxali xayri yàlla in wal yawma bi laawul yu'in man sa awoo wa fi xadi madaaliyaat laawul busar bi jaa'i sayyidil basar waliya yoom noona salam an umaa lam yufidi ala man yi laawul aliim علمني الله العليم علمني الله العليم مما يساء العلوم وسبخني بالكلوم منصرفا بزبدي ناجيت ربي الكريم بكتبي ليس تريم أنوارها ولي روم أحمد خير سفدي الله رب العالمين صلى على العاد الأمين في المالي مكمل عن رؤنا وجسدي خرجت يوم سبتي سامي خدمة المختار في سار سفر طريق ba moo ju nekk ñetti téeméer moo ju nekk ñetti téeméer ak fukki at ak ñett limbile tey su ngeen ma dégloo ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul laaj leen mbiram mi leen amal lu kenn amul gumbay njàccaar laa ngi te ngeen newe dam man ku xamul laajul ku xam man xaw ma layam ku toppatul yàlla no waayam mbaalu ko dal bum ko xul fi nan jéema daw seytaana xameeñ dugalam te jéema roy roy rijaalu laay te jéema roy ku rijaalu laay xat jaa minal ilaahi nooru bamba jegoo kurwa desand nooru bamba ji aarak noon ya yalla jaara fil baari wal baari wa naara daara seytaane banneex bakkan ak duniyaa ku fetal daaneel nga noon yu bon yaa bamba ji aarog ñoom ji yaa nu nëf si naan fi xaf katabtu fil bay la wax saytaane këpp ka boo xeyral wara awtaan noo bal ba anga see ba ca geer ba nuroo wala piil payoor ba waman yu aaji fi sabilillahi mbon maa ko yóbbu foofa doona laay déglul ma wax la la waral màggal ga màggal ga màggal ga ku bëgg sëñ Bamba loxo te ko ñu màggal borom Touba borom Touba mooy borom safar borom Touba mooy borom màggal gi borom jumaa ji dongo yu baax yi sëriñ Touba déglul ma wax la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba demam nga sëñ Bamba yaa jar di du gont ba far dee yaa defal yàlla lépp lum santaane jërë ngeen jëf tabaarakallah macha allah kan gis nga gis nga sëñ ndonga fu mu fu mu fu mu jaar li waral lu nga yeega wa lii mooy saa ndekki bi ma doon xaar ñëw na ca baarakallah macha allah léegi nag xam naa comme moom dafa ñëw ci lu waral màggal gi rek mhm. Mhm. dañuy dañuy wax sëñ tafsir rek moom it tabaarakallahu mhm. mu ñëw tijjil ñu nag lu waral màggal gi buñ paree ñu doo doog a développé sëñ tafsir bismillah jërëjëf euh, Oustaz Dame mhm. ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax a baax sëñ ndongo macha allah euh, di ziyaaraat bu baax a baax sëñ Thierno Kane ak euh, suñu soxna su tedd si jërëjëf mu mel ni mhm. dafa ñëw ci njàng mu am solo mhm. daanaka tënk ci lu bari Cheikh Moussa dafa wax ci jazaaw sakoor daat ni ci jazaaw sakoor ni xad xaala Moussa xaadimul xadiimi liman xawaa taxaddumal xadiimi yaa saa ili an sababi taazimi yawma xuruji sayxina alxadimi mm-hmm. min daarihi tudaa bi mbàkke baari mm-hmm. bi izni xaaliqil baraayal baari xarajtu yawma sabti saamin asar li mm-hmm. xidmatil muxtaari fi sahri safar yow mi laaj lu waral màggal gi mooy bis bi nga xam ni cheikh ahmadou bamba xaadim rasul suñu yaakaaru tey ak ëllëg ci la bàyyeekoo fii ci mbàkke baari di bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bisub gaawo Mm-hmm. waaye nee na lan moo tax ma génn man Serigne Touba nee na damay liggéeyal ki ñu tànn di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. oustaz daam ci jamono boobu. waaw jamono bu metti mm-hmm. jamono bu tar. l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay. Mm-hmm. ci sowwu jant fépp mel ni làmbaay. Seex Bamba dal di ñaan ci barke jiili. ni yàlla may safiyon kulli jiili. may xaadimu rasuuli fi suudaani may rammu xarnu bi ani niiraani buur yàlla dal di siñe jox yoneen ba mu dal di signé gars yi dal di jiital Bamba. kan moo tax nga génn mi ni Sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam kan mooy Sayyiduna Muhammad mi ni wa huwa alxabibu allazi min ajlihi xuliqat xalaa'iqullahi kal amlaaki wal basari. billaahi billaahi. wa ka samaawaati wal ardi naqaatibatan. wal barri wal baxri misla riiqi wa sajari. wa hakaza al jinnu aydan. Uh-huh. ma bahaimiha wakal jamaadaati uh-huh. misla nabti wal xajari uh-huh. nee na ki tax ma génn mooy soppeb yàlla bi nga xam ni cig màggaayam cig tedd ngam la ñu bindee lépp lu ñu amal ñi ngi ko amalee ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam asamaan yi amul poto bu ko suuf sépp doj ji jéeri ji ngelaw li lépp luy leer ma ngay leere ci leeru njool màkka borom màkka ma dina nee na kii tax ma génn kon cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir liggéeyal yonent bi moo tax mu génn ndax sëriñ tubaa bëggam ci yonent bi sallallahu alayhi wa foo ko natt weesu na foofu oustaz daam dafa am bés am jëmm ju ko nuyu moom sëriñ tubaa waaw mi ne ko noo tudd mu ne ko muhammadu muhammad muhammad waaw mi ne ko sa waajuru góor nu mu tudd mi ne ko abdullahi mhm. mi ne ko sa waajuru jigéen nu mu tudd mi ne ko aminatu waaw sëriñ tubaa ni ko fan nga dëkk mi ni ko medina gii ci saalum waaw sëriñ bi ni bërët mel ni ku soppeeku mel ni ku ànd ak àll. Ah. dugg ci biir di génne lu bari di jox jëmu ji. Ah. di ko jox di ko jox ba mu yàgg mag ñi ni jëmu ji demal ndax sëriñ bi de daa mel ni ku soppeeku bi sëriñ bi génnee di laajte anamu anamu ñu ne ko mbàkke jëmu jële dem na sëriñ bi yegg suuf naan lii gën a nduróo lii gën a nduróo lii gën a nduróo sëñ Ceerno xam nga lu tax sëriñ Tuubaa def noonu. lu waral loola. bi mu ne ko nan ko tudd mi ne ko Muhammadu xelam daa dem ci soppeem ba di Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne ko sa waajur wu góor nu mu tudd min ko abdullahi xelam dem ci abdullahi mi nga xam ni mooy waajur sallallahu alayhi wa góor waaye bi mu ne ko sa waajur wu jigéen nu mu tudd mi ne ko aminatu xelam dem ci sayyidatuna amina mi nga xam ni mooy waajur sallallahu alayhi wa sallam wu jigéen waaye bi mu ne ko fan nga dëkk mi ne ko midina gii ci saalum xelam dem ci mun madinatul munawara nga xam ni mi ngi wane ak cofeelam ak bëggam dafa wax ni nag sababu aybatiya an allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi mhm. sama borom moo ma nama darajaal man ahmadou bamba xaadim rasul nee na man cheikh ahmadou bamba xaadim rasul darajaal ji ma sama borom nam ma darajaal mhm. moo tax mu def ma mooy liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ma darajay xaadim rasul mhm. bu yowmal qiyaamee kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ma mën laa ramu xanaa xamoo ni darajay xaadim rasul tukki bi li muy metti di tar darajay xaadim rasul suñu borom kam ko jagleel mooy bàyyi sëriñ Saliou Mbacke boo demoon ba màkkatal mu karam mm-hmm. bind sab leetar bind ci xaadimu rasul jox ko buur ba fa nekk wala nga dem madina jox ko ko danaan yónnee leen ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke ndax maama ma ko moom ndax mooy xaadimu rasul xoolal jamono bu metti jamono bu tar jamono bu yéeme keroog bi sëriñ Touba yóbbu ko ci tukki bi mu ne najawtu bi xifzillahi min satwati lida wali raadahum turran wali karrama aljanba ansani alxannaanu min kaydi man qala wa saaraka naari lxilli li baxru maa yomba billahi yàlla musal na ma ci noon yi mhm. tàggatal ma leen mhm. tàggatal ma géej yi mhm. nam musale woon Seyduna Ibrahima ca sawar sañ ko tàbbaloon est-ce que dar ni yàlla musal na ma ci noon yi tàggatal ma leen tàggatal ma géej gi dem ba mujj gi wax ak géeju maa yomba naan ko li yashad bi kaw nii abda man yaxfiru zanba wa kaw nii xadimal Moustapha Baxra maa yomba. billaahi yow géeju maa yomba bis bu yàlla tegee siraat ci kaw jahannama. waaw seedeel ni man bàyyi Serigne Saliou Mbacke jaamub yàlla la. jaamub yàlla la. maay liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maay liggéeykatu rasulullah. ayaa baxru. Eh. waxit laa eh. tusallis fa eh. rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba. wallaahi. xoolal ji tawxiit gi wéetal boroomam mhm. dem ba ne xàmmewuma xal ak tàndarma ngir bëgg gi ma bëgg yàlla ak yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. dem ba mujj gi yu metti ak yu yi ñu koy def mu naan laka sukuru wa ridwaanu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirati ma yomba. Ah, waaw. <laughs> yow ku dem ba toll ci tolluwaay boobu. Ah, ah. xam na ni nasaraan yi dañoo saay-saay. dañoo yorug seen kàccoor. nee na bu ma mësaan a ba gis leen ñu yor seen fetal sol seen mbaxana ya sol seen dàll ya. ba fëgg ba ma tijji ma xam ni bis ni ki tey ci coono rek lay daj. mi mhm. lu metti mu santiir ko. mu sentir ko xam ni. te nag te nag maanaam ni ngay yëgee coono nii moom noonu la doon yëgee coono. wallaahi. Uh-huh. te li ci gën a yéeme coono googu nag waaye daf ni aataani yallaahu fi ruuxi wa fi badani maa laa yura li siwa zaati bila tuhami nee na dani yàlla may na ma ci sama ruu ak sama yaram lu keneen dul am muy la moo tax suñu borom da koo defal ak dal xel mm-hmm. may ko ak fit mm-hmm. may ko ak ragal yàlla mm-hmm. may ko ba nga xamante ni nasaraan si nga xam ne ñu ngi koy yóbbu jàpp ni ñoom moom Serigne Touba prisonnier la ndaka ñoom ñooy prisonnier yi asiru maa labraar xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru asiru maa ngi dox maal abraar ànd ak képp ku yàlla ma sa baaxal maal abraar ànd ak waa ahlu badrin jamono bi may dox moo ne nasaraan bi koy yóbbu jàpp nañ ni sëriñ bi prisonnier la waaye ndeke ñoom fañ ko jëmee ñoom ñooy prisonnier yi nga xam ni kon sëriñ bi dem ci tukki bi juróom-ñetti at yu manqué sëriñ bi bi mu dellusee dara soppikuwul ci moom nam daa doxee lay doxee uh-huh. nam daa waxee lay waxee uh-huh. nga xam ni ca ragal yàlla ga uh-huh. ca lépp loo gis ci sëriñ bi rek gis ko ba ñu dellusi nag moo wax la nag li mu indaalee ci màggal gi waaw mais mais bala balaa balaa ñuy ñuy ñuy ñuy dem ci loolu. Mhm. sëriñ bi ba muy ñëwaat lan moo waral tubaab bi bàyyi ko. ndeysaan te ñoon ñoo ko teewoon. xam nga. Ahmad Ndiaye Sadine. Mhm. ndeysaan. ban demee ca géej ga. la semal tubaab bi xam ne du nit. tax tubaab bi jàpp ay esclave dëkk yi toroxal. nit ñu ñuul ñi booba ba tey xaadimay ki leen teral sëñ bamba sëñ bamba sëñ bamba borom tukki bu sori bi ci sëriñ bu baawaan bi tukkeem bi sori bi te metti lool te yàgg lool moo waral màggal gee moo waral safar gee moo waral xëlëf xëlëf gi ñu mel ci bàyyi Serigne Saliou borom njurul bismillah sëriñ manul ci moom dara indiwaat ko sëriñ bi xam na ni mhm. ma ngay dem waaye maa kon daalal tubaab bi ñoo ko jàppoon dem ba mu la neex ñu indiwaat ko dañoo manul ci moom dara oh, ku ànd ak yàlla doo ragal doo tiit billaahi billaahi bi muy dem dafa bind xasid ak asiiru mhm. bayit yi njëkk yi jox ko sëñ Ahmadou Ndiaye maa béy mhm. ni ko fii ak may dellu si doo fi faatu te boobu wax nañ ne mag la mhm. am na toll na ci at yoo xam ni at ya mag ña daan toll mhm. waaye diiru juróom-ñetti at yu manqué yi nekk na fi mhm. moom biir na ko ni ndegam sëriñ bi wax na ko lool moo tax mu jox ko bayit yooyu ni ko yaa may seere kon sëriñ bi xam na ni mission la boo xam ni dafa dem ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag li tax mu dellu si mooy faaw kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci tukki bi waaye daraja yooyu ay nattu la woon mm-hmm. Cheikh Abi Mouhamad al Kunti yu ca Njaasaan mm-hmm. dafa toog ak taalibeb Serigne Touba bu ñu naan sëñ ma fëri Njaay mu laaj ko kan mooy sëb sëriñ bi jotaay bi wéetee mi ni ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasuul mi ni ko mooy ki ñu jàpp mi ni ko waaw mi ni ko baadu da ngeen a jàpp ne dañ koo jàpp daal ni mm-hmm. kooku de suñu borom dafa dajale góor yàlla yi am daraja ak i maqaama yoo xam ne da ko doon joxe Mm-hmm. waaye dafa am ay natt yoo xam ne da ko cee teg képp ku dugg boo xoolee ni natt yi toll nga daal di génn génnaat mm-hmm. waaye keroog moom de ba mu duggee moo posé candidat mm-hmm. boo demee ci minanul baqil xadim bu cheikh mamadul basir wala irwa un nadim di nga ci fekk lu mel noonu mi ni inna allaha taala kasafa lil awliyaai an maqaamin azizin indahu laa yunaalu illa bi bala'in min arzamil balwa falam yatarasax lahu illa sayxuka keroog kenn posé wul candidat ku dul sëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridin est-ce que moo tax sëriñ bi dem ci tukki bi mhm. waaye déggal ijaal rujuu'i mhm. ila xawmi saadatana mhm. wal takfina yawma jamil xalqi niiraana oh. ah. yow yàlla defal ma sama dellu si ca réew ma ma jóge yow yàlla defal ma sama dellu si ci waa Sénégal waaw yow yàlla defal ma sama dellusi ci jullit ña fa nekk ilaa xaw mi na waaw képp kuy jullit wala tag fi naa yow ma jàmmeel xalqi niiraana bu oh. ëllëgee yow mal xiyaam ku nar a dem sawara rusee ko sama tukki bi ci barke tukki gi ci barkeb tukki bi waaye tukki gi bénéfice la ci ñëpp moo tax kon tukki bi sëriñ bi xam na ni day dem waaye day dellu si kon daal ba muy dénk kee naan ko di fi toog juróom-ñetti at yi may dem yëpp xam na ko ne moom day dem te day ñëwaat. daf ko jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon xaritu maax maaxi. ndeysaan nga xam ni bi mu jaayanteeg yonent bi. Mhm. sunu borom it jox ko ndigal. Mhm. waaye nattu yi ak tartar yi faaw mu am daraja ji nga xamante ni moo waral tey jii màggal gi faaw mu am ko waaye faaw mu dékku li nga xam ni mooy nattu yi loolu moo waral sëriñ bi dellu si ndax tubaab bi ku mës yóbbu des nga fa mm. mboolem xeeti nattu yëpp dajale nañ ko def ko ci sëriñ bi. Mhm. mboolem xeeti nattu yi. waaw wax naa la ko léegi. waaw axtaani yàllaahu fi ruuxi wa fi badani. maa laa yuraali siwa zaati bila tuhami. billaahi nga xamante ni gis nga gis nga yooyu suñu borom jagleel ko. moom daal yàlla garantil na la ko jëm jeeg ruu gi waaye bépp natt rek yàlla teg na ko ko. waaw moo tax bi mu dellu see xam nga lu mu wax. waaw Serigne Touba bi mu dellu see suñu borom da koo defal tawféex goo xamante ni. Mhm. nga xamante nit ñeeg. ñëpp jublu nañ sëriñ bi ndax sëriñ bi day borom njariñ lu àndut ak lor mhm. sëriñ Tuubaa daf ni am na maag sama borom yetti jotaay yoo xam ni bu ci nekk la ma ko ca laaj la ma ca tontu lenn la waaw dama ne ko mbooloo mi nga xam ne dangaa tàggat seen xol waaw ñu sopp ma waaw bëgg ma nga xam ni bu ma nekkoon ci ginnaaw ndox woo leen fa dañuy xala lab ba jeex waaye danañ ma fa fekk man sëriñ Tuubaa ndax mhm. bu ma nekkoon ci ginnaaw sawara it woo leen fa dañuy xala lakk ba jeex waaye danañ ma fa fekk Mhm. daan ni ko bu ñetteel bi mooy yow sama borom xam nga lu ma mhm. leen di musal mi ne ko ahmadu xanaa du mbooloo mi ànd ak yow ngay wax nee na ma ne ko aha kay mi ne ma fu ñu toll di waxtaanee sa mbir ndeke ñun waxtaane gi ne booy waxtaane Serigne Touba da ngay bëgg yonent bi booy waxtaane Serigne Touba da am jom booy waxtaane Serigne Touba da am fulla ndax koo xam ne nasaraan bi yóbbu na ko mi ni leen ci li ngeen di lekk ak li ngeen di naan du ma ci lekk du ma ci naan Uh-huh. maanaam seen dundin wii duma ko laal seen dundin wii duma ko laal mais lu yéeme ak fulla na te ñoom rek la nekkal te ñoom rek la nekkal waaye baatin ak bëtu neen daa bokkul est-ce que est-ce dégguma dégguma baatin ak bëtu neen daa bokkul wax ngay wax uh-huh. Uh-huh. kon da ngay gis ni li ko ko jaraloon nag di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag moo ko téeñal yan bi bañ dellu si tabaarakallaahu maasha allah gis nga kan noo gisee tabaarakallaahu seen tafsir fi ne nii nag tabaarakallaa gaa gaa gaa sëñ tafsir buy wax yenn saa yi doo ko bëgg a dagg. gaa yaa ndax tellement que ni mu ni ni mu koy waxee ak harmonie bi mu koy tegee te macha allah. yenn saa yi da ngay jàng loo xamante ne doo ko xam macha allah moom ku gis ku maanaam ku gis ni ngay waxee xam na gëstukat la. tabaarakallaahu gëstukat la borom xam-xam la fi ne nii tabaarakallaahu moo ngi def lépp nag ci ci ci ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. Mhm. fi ne nii tabaarakallaahu mu ngi waxtaanee Cheikhul Xadim xam naa gars yi seetaan ñëpp ngi commencé daan wax na leen nag li waral màggal géeg gi caaju mais balaa ñuy demaat nag tabaarakallaahu ci deuxième tomb bi dañuy bàyyiwaat tabaarakallaahu sëñ ndongo mu ñëw nag insha allahu taala ñëw direct fi muy ñëw rek bu ko defee tafsir ñëwaat insha allahu taala ndax moom day day day ñàkk tan rek sëñ tafsir soos <laughs> waaw wakonna siri ani sina ma dafalu jismi fasirtu wa il lan sammayallaaw latal mo ma namayin ma qad yuraawixuuni balik fiyan kulama asaa'u yallaaw wa naajini wa jamii almuslimiin amaan wa naaji waa lidati amiin yallaaw واغفر لنا ولا وتل مغايبنا وتبنا وبها في لون الله أنا تجاوز وي يا نار أملنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله في البرزخ ما خبر كلما وزارا ومن كروب وخوف ناجي الله لا تختبر بما ليس بخادرة ولا تخايب رجاء فيك يا الله واسقنا ما من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرتد ساء غير ويغلق ساء كفر وينصر من يساك يا الله محمد المسكي ku sëpp sidina Mamad borom barrière or ba ci ba loxo ca ko ñu màggal muhammadin maskay akhyaari qaidina li jannatil khuldi yawmal asri yallahu alayhi salli wa sallim daiman abadan ومن غفوا ليوم ديني الله إذا ذكرت ذلك المبيت وسالك رمين وسبوت إذا ذكرت ذلك المبيت وسالك الرمين وسبوت ترت إلى الجياء بالأرماي نفسي ولا كسبني الماي sëñ Bamba nee fii la wàcc 1902 fii ci Molo daan ne tëll bato bi waleen ma maam Cheikh Anta Gaawaan mu ñëw ñu wool ko maam Cheikh Anta Gaawaan mu ñëw mooy sëñu sëñ Moodu Maamun Silla borom baax mooy sëriñu sëriñ Moodu Maamun Silla borom baax mu ne woo leen ma maam Cheikh Anta Gaawaan mu ñëw ñu wool ko maam Cheikh Anta Gaawaan mu ñëw sëñ Bamba ne ko seex man de waat naa man de wàcc naa wàccaale naa képp ku ma yaakaar sëñ Bamba nee na sëñ Bamba nee na sëñ Bamba nee na sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru borom jant ila janna bàyyi Cheikh Modou Mamoun mooy sëriñ sëriñ ma silla silla borom baax sëñ Modou Mamoun silla mooy borom jalab moo ragal yàlla doyloo borom bi moo wéetal yàlla aasa wa man tay ma way ko sëñ Modou Mamoune Sylla amul morom sëñ Modou Mamoune Sylla moo taaru moo tabe te gëm yonen ba moo gëm maam Seex Anta Mbakke borom Daaru borom jat ilal jana baayu Seex Modou Mamoune sëñ Modou Mamoune Sylla yi borom baax sëñ Modou Mamoun Sylla moo ngi topp jataay bi di xalifaab borom jalab di sama sëriñu bàyyi bàyyi dem noo koy siyaar bu baax di ko bëggalee sëñ ma Sylla jooju waaye sëñ Abdoulaye Diop xaas ndeysaan léegi mi ngi topp jataay bi ku baax suñu ndeysaan nee na Oustaz nee na mi ngi lay siyaar bu baax ñu ngi koy siyaar seen Diop ndax ma nga ba ma nga ba Mauritanie tabaaraka waaye nee léegi nag mu ñëw mi ngi envoyé message léegi nii ah xam naa ne safar gi nag bu ñëwee danañ ko def këram. incha allah ndax nag ku baax la te bëgg sëñ Tuubaa. te bëgg maam Seex Anta Mbàkke borom daal salaam. incha waaye seex yi sëñ Moustapha ak sëñ uh-huh. ñoom it nee ñoo ngi leen topp kon xam naa ne dañuy bàyyi rek ngeen doxal ba ci kanam rek duñu soog a jàllale. tabaarakallaahu sang yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. yooyu yëpp tabaarakallaahu ñoo ngi leen di nuyu gars yi daal yor yor la ñuy xaar yor yor effectivement parce que pour rappel sax xam nga ñun on est au niveau international ñu ngi ci Afrique biir wërngër këpp ah, déjà ah, ah, parce que Leral TV actuellement c'est disponible ci canal bi parce que sëñ Khadim mi doon toog fii moom wallaahi moom ca gànnaar la doon toog gànnaar lay toog di seetaan di ñu di ñu di ñu seetaan leeral leeral fépp la fépp mhm. ngay toog di ko seetaan macha allah même à travers une application boo xamante ne Leral TV am na ko muy euh, application Leral TV mhm. bi ñuy woowee télé ci poche déjà nga nekk fu la neex à juste à travers ton smartphone téléphone nga am application bi nga muy Play Store wala App Store da nga koy télécharger donc di nga gis Leral TV boo ko bësee rek. Mhm. directement lépp loo xamante ne day jàll ci télé bi da koy am directement. na am connexion rek. incha allahu taala xam naa nag dañuy développé waat amaat temps tuuti. Mhm. ñu bàyyi waat nag tabaarakallaahu sëñ Tafsir mu développé yéegal laat ñu nag dëgg-dëgg ci Ahmadul Xadim waaye dëgg-dëgg Ahmadul Xadim ak rasulullahi. Mhm. jërëjëf ñu ngi Mm-hmm. borom xalima gi nee na mi ngi topp jotaay bi. ndeysaan turu askan wi. mais nag mais nag xalima yeeg borom kii bi war nañu. nañ ñu ñaanal nañ ñu <laughs> eh. na ci def ñaan waaw waaw borom xalima yi tamit. Kéemaan nañ ci def ñaan. sëñ Modou Mbaye Kéemaan sëñ Modou Mbaye Kéemaan. ndeysaan Kéemaan. ngi koy topp. Oh. maa ngi ko bëgg ndeysaan ku baax ku baax bàyyi ñes bu baax boobu. wallaay ku baax ku baax. ku garaaw sax xalima. wallaay nit kese. nee na moom yéen rek lay topp. ndeysaan sëñ Modou Kéemaan ne ko ñun ñun tamit ñun yow rek la ñuy topp defal ci ñun. <laughs> ndeysaan aha bismillah. jërëjëf euh, ñu dellu ba tey ci liggéey gi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz Thierno. Mhm. Sëriñ Tuubaa daf ni waman takun bi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidxi wal ixlaasi wal xasani. falaa yaqaaf. wala yarjul wara zamanan. dëgg la dëgg la isil wiqaayatu nii tunihi anil kinani sëriñ tubaa lislaam rek a ko ñor waaw nee na képp koo xam ni da ngay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi kon ndake kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay melokaan yoo war a mel waaw na doon ku dëggu ci li ngay def mm-hmm. léegi rek ci thème bi ngeen doon waxtaanee maa ngi ko ciy jàmm di ko ci jàngat mu am solo lool ci xaw ma ni ngeen koy waxee infidélité xaw ma mm-hmm. dama déggul nasaraan waaw mu mel ni Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina dañ ne ko lu yàgg dëgg la mi ni bari na lu fi yàgg te du dëgg de mhm. daal ne xanaa xamoon ni <laughs> ak ay dëgg saytaane <laughs> ak ug rambaaj ak tasum mbokk tas diggante ñaar ñi nga xam ni waaye jéncantale ak mhm. warante lu yàgg ci àdduna la te du dëgg waaye lu fi yàgg te rafet looloy dëgg <laughs> moo tax wa man takkun bi rasulillahi daa dégg daa dégg Cheikh Ibrahima daa dégg am xikma da ci waxee càmba càmm taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina kooku Cheikh Ibrahima rek lay nooyee waaw kon waman takun bi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidq kon képp ku ni sopp nabi nga képp kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war nañoo jàngat ci yow ak dëggu mhm. wala ixlaas sa diggante ak sa borom bu ci dara dox sëñ Tuubaa noonu la meloon waaw di sellal digganteem ak boromam sellal digganteem ak képp koo xam ne doomu aadama mhm. wala xasan mhm. di rafetal di rafetal ci doomu aadama bi mhm. di rafetal ci ki nga xamante ni ab jullit la mhm. di rafetal ci ki nga xamante ni ñoo bokk tarixa di mhm. rafetal ci ki nga xam ni bokkoo leen tarixa wala xasan falaa yaqaaf kii def loolu bu mu ragal dara bu mu yaakaar benn mbindeef bu fekkee ni wéeruwaay rek lay wër rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doy na wéeruwaay sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wanaa kullu zi ilmin wa saayin wa rutbatin anil mustafa fi xulqihi alxaaisi al ulwi lottu na est-ce que ci ah. kuy borom xam-xam uh-huh. baa ngay borom jëf Mm-hmm. wala ngay borom martaba ngir nga dab ko ci jikko yu kawe yu màgg yu sell yi nga xam ne làq na ko moo tax Cheikh Moussa Ka dani ko ku lay jaay taar na sam xel dem ci muxtaar ka ni Moustapha ma ñu tànn yaasin ku lay jaay taar na sam dem ci yaasin imaamul mursalina ki lay di yaasin muhammadu mm-hmm. mooy turam wa ñu santee baayam wa ahmadu mbaate xaamidu mbaate yaasin te ahmadu moo di naa ci baatin te xaamidu moo di ni'matuna fa yaasin mhm. turam ya mu am dañoo làmboo ci maanaa mhm. limub xeetam wi ci xewal fa yaasin turam yi lee mat na yar téeméer wa ixda mhm. yëral ma dalaa ilal xayraati yaasin muhammadun ca la bokk ahmadou ca la bokk xaamidun ca la bokk mahmudun ca la bokk ahidun ca la bokk wahidun ca la bokk maahin ca la bokk xaasirun ca la bokk aaqibun ca la bokk taaha ca la bokk yaasin ca la bokk taahirun ca la bokk mutaharun ca la bokk tayyibun ca la bokk sayyidun ca la bokk rasulun ca la bokk kaamilun ca la bokk ikliilun ca la bokk mudassirun ca la bokk muzammilun ca la bokk yii yëpp ay tur rasulullahi la moo tax Sëriñ Tuubaa da koy tagg ba mu yàgg di wax ca daraja ya ni ko maqaamaatu xayril xalq illallah. sëñ ndongo yëkkati loolu. sëñ li ma lay wax mooy kan maqaamam Taaha. maqaamaatu xayral xalqi. maqaamam njool Makka borom Makka Madina. alxayri rabbi. walis ku boromam. muxayaabatul fal taqra. lu ñu ndëbb la boo ko bëggee xam rek jàngal. an suratal najmi boo bëggee xam maqaamam Seydina Muhammad demal nga jàng saarum mi Muhammadu al Muxtaar Seydina Muhammad al Muxtaaru mooy ki ñu tànn laaxal xamis la woo. xanaa ko moo ni Oustaz Thierno mbindeef melul ni Seydina Muhammad. alayhi salaam man. xanaa xamoo ni mbindeef melul ni Taaha. loolu amrukal hukmi. xanaa xamoo ni mbindeef melul ni Kaamilun. Muhammadu al Maxruuf. yënga ni Seydina Muhammad al Maxruuf mooy ki ñu xam. maayil wa maali. maaxin aji far kéefar la wa maaniqun aji maye la moom Moustapha lu mu yor da koy joxe ngir ab tabla. abizi maxsuus. wa bil izzi maxsuusun wa maxsuusun bil izzi dañ koo jagleel ak wasimi ndeysaan dañu koo ñoŋal aar ko ci walis lépp luy ayib ak luy dul ayibal nga xamante ni kon mujibun mujaabun murtadan muhlikun hida mujibun mujaabun ay waay mujibun aji wuyu la mujaabun mujaabun ku ñu wuyu la murtadan likul hida murtadan aji alak nooni ku sopp sëñ Bamba loxo ca kaw ñu màggal mujibun mujaabun murtadan likul hida kon mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu digganteem mag ki nga xamante ni kat mooy Serigne Touba Serigne tubaa nag suñu borom da ko cee jagleel lu mu jagleelul kenn xoolal ci njabootam gi yow mi liggéeyal Moustapha bul fàtte am dil Moustapha ak doomi bàyyi Moustapha ñoo amee mbootu xarnu bi minal naasi wal wax mi madinatu ilmin mooy dëkk ab xam-xam murtajan mooy ki ñu yaakaar milnatun lana xanaa xamoon yàlla ñu ko xéwale jëri un xanaa xamoon yaqulu kulluhuma nafsi wa ahmaduna wa min judmin yaqulu ummati yayit xam xayra man sunobin wa min zulumi moo tax ma ne la yow miy liggéeyal Moustapha bul fàtte am di Moustapha ak doom doomi bàyyi Moustapha ñoo amee mbootu xarnu bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan mat na xalifatul xadim fees na place ba mat na doom te am na xam-xam ami koom mhm. mën naa musal waa xarnu bi mhm. moo tax nga xool ci sëriñ fàllu rek li mu amee ci yonent bi nga xam ni donte sëriñ fallu bi sëriñ bi di dem ci tukki bi moo Cheikh Mamadul Moustapha da leen a dénk maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru ndax dénkaane koo wóolu jaay ko am njëg maye ku neex li may dénkaane denk naa ko maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru ndax dama ko wóolu ndax imaadu diinina aqul imaana wa saahibal islaama wal ixsaana cernooy kennul diina di ruux ak lislaam moo njëkk moo mujj ta moo fi xam daam min allaahi rabbil ardi abqi salaatu bi taslimi lil mustafa muxjilal yeme waaye sëriñ bamba nee na la doon jaay jaay naa ko Cheikh Ibra Fall. dégg nga loolu Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. Isa Jéy Fatim Penda lak sukaa bi ngoone de ceefe njoogu dameel samba yaay faal Cheikh Ibra Fall nee na waaye li ma doon dénk dénk naa ko maam Cerno Birahim Ndamal Daaru bàyyu Cheikh Awa Balla Moodu Awa Balla rakk la rëkk la sëñ si bamba toxorom ba mbaan ngi waaye sëñ bamba nee na la ma doon maye may naa ko maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam borom jannati ilal janna baayu Cheikh Modou Mamoun mooy sangub sëñ ma silla ndaak borom baax nga ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall laataa maa ñëw fu ma ñëw xam nga sëñ Thierno Cheikh Ibrahima Fall bari nañu ko umpale Euh, moom teel naa jàng alxuraan mokkal ko waaw mhm. tafsir ko bii rek biti yàlla may ko mhm. muy jàng ak di jàngale ak di taalif ba làq xam-xam yëpp nekk aarif macha allah mhm. dem ba doon salma sita amul tariqa la ilaha illallah xanaa xamoo ne bari na ku jàng ji ca réewi naar yee ñëw di di nga Cheikh Ibrahima Fall waaye bu jàngee jës bul murit xam ni Cheikh Ibrahima Fall amul morom. la ilaha illallah. Oustaz Dame basmala ba siin miim nga Cheikh Ibrahima Fall nee na wa amal ba uminal basmalati. la ilaha illallah. nee na boo nee baa fa isaaratun ak junj lan lay junj ila tarki zan bi jëm ci bàyyi def bàkkaar. fa la ilaha illallah. la ilaha illallah. nee la muy junj mooy bàyyi lu la ilaha. ilaha illallah wa amal miimu miim nga nag fa isaaratun li taati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah li muy junj mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon la ilaha illallah faal kon dafay mel ni boo nee baa mi ne la bàyyil def bàkkaar nit a ngi def bàkkaar ni bis mi Cheikh Ibra nee na bi nga nee bi mi ngi naan la ay diw sa melokaan sa jikko ji nga xamante ne mi ngi nekk ci yow ñëpp jàpp nañ ne ku baax nga te sa intérieur yow ndeke ko safaanu nga mm-hmm. sa jikko ji dindi ko mm-hmm. bàyyil bàkkaar yi ngay def mm-hmm. baagi nga ni nga ni siin mi ne la lépp lu ñu si bako nga ni mii mi ni li yonent bi sallallahu alayhi wa indi téye ko te xam ne mooy li gën ci yéen lu mu la tere bàyyi ko te xam ne gënul ci yéen kon doy na sëkk ci li ko yàlla jagleel mooy fi may daanelee mooy sëñ Fallou uh-huh. sëñ Fallou dafa am ñaar ñu doon werante ci diggante darajey tiim ak jàpp bu ci gën ak jàpp ak bu ci gën ñëw ba ci sëñ Fallou sëñ Fallou ñu ne macha allah yéen de yéen de yéen de mënees na leen a atte ànd ak ñoom génne gise goo xam ni daf cee def xaalis bu bari sotti ko ba ñu gis ko mu ne ana ki ne tiim a gën mi ne ko maa ngi ne mi ne ko xaalis bi waaye te laal bul ko jege daal ni ana ki ne jàpp gën mi ne ko maa ngi mi ne ko jàppal ci xaalis bi waaye te def sa poos dem faj sa soxla waay kon xam nga ni jàpp gën mm-hmm. koo xam ni bu ñeenum tudd ñu ne laaj leen alxuraan fën la dëkk ñu ne laaj leen alxuraan fan la feeñee jamono ñu ni laaj leen al alxuraan lu muy liggéey ñu ni laaj leen alxuraan nga xamante ni buñ nee nan la tudd ñu ne demal ci suuratul jumuati ci aayab ñetteel ba zalika fadlullahi yutihi man yasaau wallahu zul fadlil azim mooy ngëneelu yàlla fan la feeñee jamono ñi ni demal ci sóoratu yunus ci aaya ñaar fukk ak ñeent wallahu yad'u ila daari salaami wa yahdi man yasaau ila siratin mustaqimin daaru salaam la feeñe jamono fan la dëkk demal ci sóoratu raadi ca aaya 28 wala 29 allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa xusnu maabin tuuba la dëkk waaye buñ ne kañ la feeñ jamono mi ni mën ak julli ñoo bokk anniversaire nee na xoolal demal ci suratul isra'i subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa ñu ni sëñ Fallou ban bis la feeñ jamono ñu ni dellu ci suratul jumaati yaa ayyuha allazina amanu iza nudiya li salaati min yawmi al jumaati bisu àjjuma la feeñ lan lay liggéey ñu ne demal ci suratul anbiya ci aaya 106 wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon doy na sëkk li yàlla defal Serigne Touba nga xool ci Cheikh Mouhamadoul Fadal wala mboolem njaboot gi ñoom ñëpp rek alaaji alaaji falo mhm. ni ko yàlla def mhm. ku mu neexul yaay ki réere yow yaa réere sëñ Fallu Baay Mbeen sëriñ Fallilu alaaji Fallilu alaaji alaaje Fallu sëñ Fallilu sëñ Fallilu yaa bari may sëñ Fallilu yow yaa bari sañ te loo masa wax sa borom def na loolu sëriñ Faliilu alaaji Faliilu alaaji alaaji Falloo sëriñ Faliilu sëriñ Faliilu jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa Faatu Njaay ma ci buur sëriñ Faliilu ma dejiin naa way naa maa ngi kàll sama géer sëñ Falliloo mooy baayu Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallu mooy baayu Murtala ku sopp sëñ Fallu loxo ca ko ñu maga alaaji Falloo baayu mbeen sëñ Falloo woote màggal gi Touba. tabaarakallaahu macha allah sëñ tafsir bëgg nañ gis nga nu mu développé tabaarakallaahu cheikhul xadim lu waral màggal gi ñëw na ci waaye cheikhul xadim ak digganteem ak rasulullah yemu ci nag mu dugg ci ñëwal cheikhul xadim daane leen nag tabaarakallaahu ci doomam ji sëñ Fall bu baax mi nga xam ne moo gaaw ci aajo juróom ñaari Fall rek sëñ mbir baax loolu daa doy tabaarakallaahu bu ko defee nag tabaarakallaahu sëñ sëñ sëñ sëñ juste le temps le temps est précieux il xam naa temps temps baa ngay waaxu mais nag mm-hmm. mm-hmm. mu développé dernier développé bi mm-hmm. dernier bi yàgg rek mu kii ñu. mbaa mbaa xaj na ci. du kii du kii xam Eh? xam naa nag da nga koy tënk rek. noo tënk kii ñu rek kii ñu rek non sa tafsir man damay damay bëgg ngay wax. parce que lu tax ma ne tekki nii maa ko xam. Mhm. mais développé ma tuuti rek. parce que li wax li muy li muy li muy li muy wax mu ngi neex. Mm. Massamba Ndiaye tabaarakallaahu moom Serigne Saliou moo ngi kontaan mu ngi may yónnee message fi mu ne nii fu mu toll nii neena daanu na tabaarakallaahu macha allah. Mm. mais nag sëñ ta balaa ñuy balaa ñuy développé di daaneel ñoo ngi wax tabaarakallaahu murid yi nga xam ne dañoo daanu ñëpp ñëpp ak képp koo xam ne rek daanu nga liñ lay wax daal kan mooy boo ci mënee jàpp rek tabaarakallaahu seen numéro ngoog sëñ Tafsir Ndiaye numéro am 77 la 334 52 06 77 334 52 06 incha allahu taala képp koo xam ne rek tabaarakallaahu bëgg nga joxe addiye joxe leen seen addiye addiye Cheikhul Khadim kon kan ñu bokk mu développé tuuti ci dernier tomb bi rek xam naa du yàgg. ñu ñu loolu incha allahu taala. waaw euh, dañuy tënk rek ci maanaam ñi ngi jëm ci bërëb bu tedd ba. Mhm. te bërëb la boo xam ni. sëriñ bi sunu borom da koo jagleel ndax daf ni mboolem góor yàlla yi dañ koo bëggoon sunu boroom dajale góor yàlla yëpp jël Touba tàbbal ci seen biir daal ni Touba tànnal kën nga bëgg mu moom la nee na Touba ñëw ba ci man jàpp ci sama loxo ni yow sama borom bàyyi sëriñ Saliou Mbacke mi laa bëgg mu moom ma dëkk la boo xam ni nee na bokk na ci li ma fi njëkk ñaan lu fi waaye ñaan yàlla ñu defal ko ko kuñ fi jenc suñu borom def la nga doon aji texe kon dafa ay comportement ay jikko ay melokaan yoo xam ni moom lañu war a yóbbu ca barab booba mhm. ndax fi mu ne nii ab taalibi sax isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu xasada gis nga ki ni ab murit la murit nag du ki tënku rek ci tarixa bi mais murit képp kuy jullit murit nga warta soxlawoo dara fu mu mën a jublu nag ak barab bu mu mën a nekk lu dul ngërëmal yàlla fii nag sori gu jege day am ak jege gu sori fi mu ne boo nekkee ba fii di def lu naqari sëriñ bi daanaka yaay ke sori sëriñ bi waaye fi mu ne bu fekkee da ngaa nekk fii di def li neex sëriñ bi yaay ki jege sëriñ bi mm-hmm. ku nekk tuubaay it di def lu naqari sëriñ bi yaay ki sori sëriñ bi mm-hmm. ki fii di def lu neex sëriñ bi yaay ki jege sëriñ bi mm-hmm. kon sori gu jege dafay am ak jege sori kon ñu bàyyi ndax am na ay matuwaay yoo xam ne ni Cheikh mun taxa joxe na ko fa àdduna nag bi Ibra daf ne woon ñetti fan la démb tey suba loo rëcc démb tey suba loo rëccu démb fexeel defar ko tey ngir sa suba mën a jeg daal ni tappale ñetti fan la bis ba nga ko tàmbalee bis ba ko ñëpp xamee ak bis bi la ñëpp di bàyyi tappale ñetti fan la bis ba nga ko tàmbalee bis ba ko ñëpp xamee ak bis bi la ñëpp di bàyyi muy ñett muy ñett yi foofu la ñuy daanelee suñuy kaddu ñu bala kon nga tàggatoo waaw di ziar bu baax baaxit nag uh, sama yaay soxna ay Guèye nee mu ngi topp jotaay bi mu ngi am mbégte di am kontaante lool waaye Seydina Alioune fay sant Serigne tubaa Uh-huh. ak soxna Ramatullahi ñoom it ñi ngi topp jotaay bi tey am mm. mbégte Cheikh Aliou it nee na mi ngi am mbégte lool di leen ñaanal ak tawféex nee na Leral TV ca kaw ca kanam sëñ di Jara ñoom ñëpp rek maa ngi leen di jaar baax sëñ Assane Diong sëñ sàmbali ñu ngi siyaar baax Cheikh Ibrahima Kane Baye Fall moom it nee mi ngi topp sëñ ndongo Cheikh Ibrahima nee na mi sama doom baay la bëgg naa nag mu teew ci jotaay bi wallaahi <laughs> incha allah jërëjëf jërë ngeen jëf léegi nag léegi nag dañuy bàyyi sëñ ndongo moom mu développé joaay nit mu joxe numéro téléphone am mm-hmm. tabaarakallaahu yéen ñi nga xam ne rek tabaarakallaahu daanu ngeen ngeen daanu ci wéef bi rek dimbali leen ñu <laughs> wéef bi orange money bi yëpp tabaarakallaahu waa numéro bi mooy 377. 99 44. 300. 77. waaw 99. waaw 44. waaw kon ñu bàyyi la nga tàggatoo Oustaz. ci waxtaan wu neex wi. jërëjëf mu ne lay sant Serigne Kane. jërëjëf moom daf may fàttali Oustaz Kane. man nekk sama koñ. Mhm. ak Serigne Ilimane Kane. ñu mhm. nga xam ne ay nit yi diine lañ nekk fa def ca koñ ba lu baax. Mhm. ñoom it noo ngi leen siyaar bu baax maa ngi nekk benn baraag Malika benn man Oustaz Kane Oustaz ah. Ibrahima Kane mooy sama ah. papa. ah. Mhm. man ak moom bokk koñ. jeex na Imaam Kane kon yow ñoo bokk koñ. kon yow maa ngi lay ziar ku nekk dañ lay jàkka ji muy jiite man fa laa jullee. jeex na jeex na chaque suba. jeex kon nag maa ngi koy ziar moo tax bi nga nee kan rek. Ah. sama xel daa nekk ci moom. dëgg la dëgg la ndax moo tax def lu baax am solo. waaw def leneen nit ñàkk solo. ndax fii nii ñii nekk ci caaxaan bu nu génnee rek da nga xool xam ne ñu ngi caaxaan. waaye ku nekk ci lu baax boo ko gisee xam ne kii mi ngi. ñu ngi ci lu baax moo tax bu nekkaan rek sama xel nekk ci kan-kan yooyu suñu bàyyi dem ba kenn noo koy ziar baax yaa faat sàmb noo koy ziar baax baax baax baax baax mm. noo lay ziare sëriñ Modou Mamoun Silla di sama sëriñ ak sëriñ na Silla noo koy ziar bu baax baax baax baax di ziare mbooleem benn baraak daayira wakkaan xaqan noo ngi leen ziar jëwriñ Matar di ziare maire Fat Doumbouya maman Fat Doumbouya ziare marché ba maire moom sama maire bopp la sama yaay fat du bëya moom lañ tuddee marché bi nekk foofu moo nekk sama yaay bopp ndeysaan moom moo ma ne man maa la doomoo ku baax ku di ko baax di ko yaatu ko yaatu wallahi kon mën naa ne kon kon naa bàyyi sama yaay kon sunu yaay jooju donc moom moo ñu boole ko waaw waaw moom moo ko ñaanal borom ndeysaan defal ko tawféexal Sëriñ Tuubaa Abdoulaye Diop xaas mm-hmm. noo koy siyaar moom la naan ne ko bi nag nañu ñu ne moom kay moom bu jógee bu ñëwee waaw moom bu soobee yàlla dañ fay ànd dem fa waaw ci kàttanu yàlla non moom kay dama koy xëcc fii ci émission mu ñëw toog toog bu soobee yàlla ah, koy invitation ouverte laa koy def fii ci émission bi saas dañ ko fay soxla waaw kon donc loolu kon incha allah kon dégg na ko su boobaa kon sëñ Tafsir Ndiaye bii laay àndal ak moom amul benn iskal même sëñ Modou it indi sëñ Modou Kéema waaw day ñëw ak sëñ Massila Diop na ñëw sëñ Basile Diop ndeysaan sëñ Basile Diop ndeysaan ndeysaan ndeysaan maara si mooy sëñ sa Ba ak sëñ Bas waaw day ñëw kon kay kër gi ah. wàcc yi bàyyi li ngeen def fi dëggul na ñëw rek dama neex <laughs> ah na ñëw fii daal neex soxna su baax si tamit wallaay aji soxna waxal faral fi faral fi góor ñi ah. baax na ndax ma seet naa waxam yëpp góor ñi rek la faral ndeysaan ah. sant bu baax góor ñi nga faral jërëjëf jërëjëf alaaj maa koy ziar bu bu baax moom it ndax moom da fu baax fu nekk rek ndeysaan ànd nafaak oh loolu xam na ne ko maa ngi jégalu nag ndax boo déggee baat yi hmm. nga xam ne safar gi wallaahi wallaahi jàpp wallaahi moom mi sax moom moom mi sax dafa sonn ndeysaan wallaahi émission bi dem naa dem naa bay kii waaye moom moom it wallaahi azim nelawut nelawunu noonu la ñuy jógee ñëw fii moo tax boo xoolee seen tafsir bi sax noo ngi ñaan yàlla waaw lu fi xaw a kii rek nan ñu ko jégal ñu jégal ñu ko rek dama non macha allah yàlla yàlla def jërëjëf kontaan naa en tout cas lenn xam naa ko yaa oustaz mhm. euh, man danga may bett saa su ne mhm. ay waxtaankat yi ngay indi man dama ciy bég moo tax moo tax boo waxee rek ma ne la oustaz man moom yëfu invité yi moom géré ko rek xam nga xam nga tabaarakallahu macha mhm. allah ñoom sonn nañ lool ndax euh, safar gee tax moom boo xoolee sëñ tafsir sax man moom sama xarit la yàlla dogal na ne yoon bi moom képp ku ci waxtaan yoonu ahmadul xadim moom tabaarakallaahu da cee nekk sama xarit waaye yàlla dafa dogal bu mën a tël premier invité moom laa kii waaye depuis bañ safaree ba léegi amul temps moo tax moo ngi doog a ñëw tey la ko yàlla dogal loolu rek moo waral tey la ko yàlla dogal tey muy doog a ñëw baarakallaahu macha allah ñu kontaan ci moom waaye kontaan ci sëñ Ndongo ka tabaarakallaahu taxawaay bi rafet na waaye bég nañ ci yéen ñaar mhm. insha allahu taala loolu la ñuy def kontaan ci yéen ñaan yàlla yàlla mottali tabaarakallaahu lépp bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko xool seen baat yi xam ne sonn leen waaye dagg nañ lépp ñëw tabaarakallaahu ñu tàggatoo nag tabaarakallaahu ni ma ko waxee rek man nuyu njaga safle dëgg ko gër. Ndiaga sax nag day fay droit parce que ñun gisaguñu ndekkeem gisaguñu reeram. Ndiaga ba ba léegi nag day waaj. ah xaw ma waaj de mais moom beneen yoon moom doo ko fi tudd te gisuma. Ndiaga moom Ndiaga euh, lii de war nañ ko lijjanti Ndiaga Safle. kon baax le messi de dibiteer ñu nuyu ko. merci beaucoup nuyu nag tabaarakallaahu borom borom borom Dakar. Mhm. jëy électronique man nuyu ko borom téléphone yu baax yi mhm. xam naa suma paree sama garde robe ci téléphone dina ko changé <laughs> man nuyu ko bu baax tabaarakallaahu jox ko wàcc waayam. yëpp iPhone yeeg Samsung yu baax yeeg. Ousa Ousa bul tudd tur bul tudd tur mais rek borom téléphone yu baax yi. waaye nag bu loolu jàllee maa ngi daaneel maa ngi daaneel kan. di leen yéegal tabaarakallaahu Serigne Mouhamad Guèye. Mhm. fële ca Mbour waaye dëkkee Saalum tabaarakallaahu. Mhm. mooy waajal kat mi kat mi yem bi nga xam ne daf koy def le 3 septembre. ndeysaan incha allahu taala ñu ngi koy yéegal ñëpp. ndeysaan ñu ngi koy yéegal ñëpp Serigne Mouhamad Guèye. ndeysaan mu ngi koy defee nag tabaarakallaahu Kër Birane mhm. commune de Saalum. ñu ngi koy yéegal waa Touba di ko yéegal waa Saalum di ko yëgal Kaba Kantak li ko wër yëpp jàpp Mbour jàpp Koungheul Kaffrine tabaarakallaahu Kaolack fépp sëñ Mouhamed Gueye mu ngi leen ko yëgal incha allahu taala. kon waa donc loolu le lay doon incha allahu taala. jërëjëf ayca kon waa Ndoukoumane le 3 septembre incha bu leen ko daal di fàtte loola ci annonce ba tey jii oustaz Aliou Niang xam-xam boo xamante ne kenn naatam li ko moom it dañ ko tudde ab jàng mooy jàng ca loola fëra ca ñaari tali ñu ñaa ñu ñaanal ko bu baax a baax mu ne oustaz jàng bi ñun ñaar la ko tuddee ñooy ay invité d'honneur ah. kon nag loolu la wax te yu baax yu loolu moom tay lay doon ak suba incha allahu rabbi safar lay doon donc yaa oustaz Aliou ñu lay nuyu bu baax baax mm-hmm. alors c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup chers téléspectateurs ñu leen di